asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii ñu leen di nuyoo ci seen télévision mag bi ñu naan DTV ñu dàkkantele ko vivez la magie de la télé ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñuy waajur sant sama sëriñ sëriñ Ousmane Mbacke ibn sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Mouhamadou Ousmane Mbacke mu Xaadim Rasul ñu ngi nuyu kilifa diine di nuyu kilifa aada yi di ñaan ci réew mi jàmm la maam Abdou Aziz Dabakh daan wax naan boo amee sa ëmb mu nekk ci gaal gi da ngay ñaan yàlla gaal gi mucc su gaal gi muccee sa ëmb mucc la nekk ci ëmb mucc gaal googu nag mooy senegal kon yàlla yàlla dolli jàmm ci réew mi tey bu ngeen gisee ñaari photo yooyu ñu wone di ngeen xam ne ñaari kilifa yu mag ci réew nekkoon fi di

occupé woon tamit occupé woon fi ay fonction yu am solo jaxasoo woon tamit ak kilifa diine yi jaxasoo woon tamit ak kilifa aada yi jaxasoo woon ak i mbokkam buñ nee mbokkam moo ay mbok léboom ak ñi nga xam duñu lébu jaxasoo tamit ak ay dekkandom ba paré bari won valeur lor nag muy Mamadou Diop moom la ñu fas koy ci waxtaan wi duñu ci wéet ki ci dess muy alaaji Bassirou Diagne alaaji Bassirou Diagne le grand sérigne de Dakar nga xamni mom moom na ci grand sëriñ yi nga xamni ñun dañu nek xalé mag ànd ak moom ci civilisation ci beaucoup de valeur beaucoup de personnalité am fulla am fayda am ngor demb mo nekkoon anniversaire am muy le 25 mars mu tombek bis bo xamni mom ak sëriñ Babacar si ñoo ko kon moom am na lu ko liyee woon moom tamit digganteem ak Serigne Babacar ak kilifa diine yépp tey ñaar ñooñu leen war a waxtaanal dañ ci indi ñoo xam ne danoo nekkoon ak ñoom di dundandoo ak ñoom daan liggéey ak moom muy di Diop Bassirou Diagne tamit bu ñu nee indi nañu koo xam ni tey mun nañ ko way grand sëriñ ndaxte grand sëriñ sa baay bu nekkee grand sëriñ cër boobu dañ la koy jox moom lañu la way grand sëriñ muy doomam mi ci plateau bi waaye damay tàmbali ci sama ndijoor ndax ñooy sunuy nijaay di sunuy mag di sunuy xarit monsieur Ablaye Diop moo nekk sama wet mooy mu nekk koo xam ni yàgg na ak Mamadou Diop moom laay njëkk a jox kàddu gi mu nuyoo monsieur Ablaye Diop ginnaaw bi ma la pare maa ngi kontaan bu baax ci wuy si bi nga ma wuy si ma bàyyi la nuyoo askan wi lay seetaan. jërëjëf bismillahi rahmaani rahim salatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf Ibrahima ibrahim Bigué Ndiaye. Mhm. Euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a ndax it tamit sa woote bii yàlla daf ko taaral nga woo fi ay bokk ñu waxtaan ci ay bokk jël ci gërëm bu baax di la ci sant man mii de Abdoulaye Diop mën naa wax ne doom laa ci Mamadou Diop doom laa ci Mamadou Diop di doom ci El Hadj Bassirou Diagne bokk ci askanu lébu bi laata ngay ubbi antenne bi. Mhm. da nga ne tey jii kat dañuy waxtaan ci valeur yi. Mhm. nit ñu baax ñooñu. Mhm. kilifa yu baax yooyu andi ko ndax dafa jot nag. sa thème bile. thème bu am solo la dafa dëppoo jamono ndax fi ñu toll. di la ci gërëm baax di la ci sant. El moom Mamadou Diop. dama di doomam. mu woo ma man ma doon enseignant. doon professeur am fu ma jaar gisee moom ci biir kër gi suñu kër lébu gi. mu ne ma ah dama nekk di defal ndakaaru kat dama bëgg nag am ay cadre yéen yu ñëw bokk liggéey ci ndakaaru bële ma bàyyi la ma doon def ñëw nekk ci wetam àndax moom te rëccuwuma ko jërëjëf <laughs> kon dinañ ñëw ci loolu mu gën a yaatu incha te rëccuwoo ko ndaxte ku ànd ku baax mhm. yaakaar naa ndam lañ ciy jële ak njariñ lañ ciy jële mooy loo xam ni rëccuwoo ko mhm. ki ci des muy El Hadj Mansour Tambidou ñu koy wax monsieur le maire nekkoon na adjoint au maire ci Mamadou moom tamit mi ci plateau bi nekk sama càmmoñ. Mhm. monsieur le maa ngi lay nuyu. ma bàyyi la mu askan wi lay seetaan. maa maa ngi fay di wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. di nuyu ñi toog. Mhm. fii di nuyu Sénégal mhm. am tamit euh, mbégte. si teew fii. lu am solo la. di waxtaane ay valeur ñaar ñiy wax. ay valeur lañu. ci fi ñu dëkk juddoo fa mhm. ay valeur lañ fi te ñi ñu bokkal aussi dañ leen di tiitaroo mhm. bon man bari wu ma lu may génn bu may set dem si télé yi mhm. mais lu mel nii daf ma neex ndax dañuy faxtane ay valeur waxtaane cosaan te am na dëkk bi lu mu commencé rafle saak loolu moo tax waxtaan bu mel nii ku ma si woo dama siy sawar ndax euh, defe naa ni xale yi am nañ bëgg nañu war nañu am war nañ leen wan ñan ñoo doon ñooñu ak noonu nan lañ leen doxale mhm. ma yaakaar ni bu ñu si jógee mhm. je crois que dana am ñu bëree bëri lu ñu xam macha allah vraiment kontaan naa si lii lu mel nii nag. war nañu am si plateau yu bari. walaay walaay ndax wax dëgg yàlla dañu war a waxtaane Sénégal waxtaane nit ñi. ndax raflé wuñu ay ay kilifa. bilaay walaay bilaay bilaay. di leen teg di wax ak ñoom. bilaay ñooy suñuy référence. wallaay lazim te dinañ si ñëw tout à l'heure dinaa si wax loo xam ni. xam ni xel am naa référence. am na lu ma référé aussi. walaay walaay dëgg la tànn vraiment en tout cas maa ngi kontaan trop di la gërëm bu baax. jërëjëf monsieur le maire di ñaanal seen télé bi vraiment mu yàgg. amiin di ñaan aussi ñeneen ñi nga xam ne ñoo kii ñëw ñuy def lu mel nii. macha allah wax dëgg yàlla dëkk bi dafa bëgg lu rafet. wallahi Sénégal. teraanga la mos xam. macha allah walaay dafa rafet. wallahi tamit te lu melni dafa jek dafa jek man bu ma gisee lu jek rek. dalay da ngay kontaan da ngaa baax wax dëgg bu ma gisee safaan ma nak wax dëgg yàlla. wallahi walaay da nga ba daal di feebar rek. jërëjëf jërëjëf Tambidou mom tay muy c'est le maire El Hadj Tambidou mi ngi nonu de ngeen momit fi ni mu ubbe ki ci dess nak mën na ni moy Basirou Diagne ndax dom dom la ci Basirou Diagne di Diallo Diagne di nit ku bax di nit koo xam ni boo ko séenee muy dem rek ba Bassirou Diagne muy dox la ci valeur ci personnalité ci fulla ci fayda ba pare doom xale waaye mi ngi incarné incarnation boo xam ni xale yi am nañ repère xale yi war nañu mën a roy ci xale yu mel nii ndaxte xale bu fekkee dafa topp ci ginnaaw xale boo xam ne dafa am yar dina dem ba jalis ko bu toppee ci ginnaaw xale boo xam ne dafa am valeur dina dem ba jalis ko bu toppee xale boo xam ne dafa am jom dina dem ba jalis ko kooku mooy Diallo Diagne nga xam doom la ci El Hadj Basirou Diagne ma kontaan lool nag na lool lool lool lool ci plateau bi ndax yaakaar naa li ngeen koy seen ci plateau yi bariwul mën naa nii daal bokk naa daal ci ñi nga xam ne daal dinaa toog ni doomu Basirou Diagne Diallo Diagne defoon naa moom plateau boo xam ni senegal gépp ñu ngi koy waxtaane Diallo maa ngi lay nuyu di kontaan lool ci wuy si bi di kontaan lool lool nag vraiment ci sama kóllëre ak yow. ma bàyyi la nga nuyoog askan wi lay seetaan jërëjëf jërëjëf Sadou Bigué jërëjëf Diagne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa la hawla wala quwwata illa billahi al azim ah ñu ngi dellu sant yàlla di kontaan lool ci invitation bi mm-hmm. ndax ki ñu bëgg a waxtaani tey ñi ñu bëgg a waxtaani tey mm-hmm. ñaari dëkkandoo dëkkandoo la ñu woon kon baatin am na ci émission bi mm-hmm. ndax ñoo bokkoon benn koñ ca fan résidence Mamadou Diop bu soxlawaan sama pap day dox tànkam dugg ci biir kër gi sama bàyyit bu soxlawaan du Diop day dox dugg ci biir kër gi kon yàlla boolewaat leen tey jii ñu bopp plateau di waxtaan hasard amul dëgg la suñu ba Baye Bassirou Diagne nag mm-hmm. Baye Bassirou Diagne Sénégal yëpp la dëgg la fii ma toog Sénégal yëpp laa fi toogal mm-hmm. képp ku xamante ne fréquenté nga ko mën ngaa wax si moom mm-hmm. waaye rafetal dafa am dëgg ngeen woo ma ne ma daal naa ñëw waxtaan si moo tax ma teew fii. valeur nag. Mhm. mooy thème bi. Mhm. Sénégal li ñu nawe mhm. mooy teraanga. te teraanga dafa nekk valeur bu am importance. te teraanga ci la jàmm nekk. ci la demalante nekk. ci la wax lu rafet nekk. ci la wax lu baax nekk. te loolu jafe ci jamono juñ toll. wallaahi laazim kon daal ngi sant yàlla ci teewaay bi ñu teew fii. di nuyu sama papa yi ma fekk ci plateau bi nga xamante ne xàmmee naa leen ñu doon sama ay wëllëre pap ndeysaan yàlla boole maak ñoom ñu ngi ñaan yàlla émission bi ub ci jàmm jeex ci jàmm ñu jëli fi njëriñ te ñu teewaat ko ay déwén yu bëree bëri kenn bañ a manqué Amin Diagne Amin Diagne mi ngi noonu waxtaan bi tey gis ngeen niñ ko campé suñu ñetti invité yi nga xam ne ñi ci plateau bi am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ci biti dinañ leen jël par téléphone incha allahu rabbi waaye dañuy tàmbali waxtaan wi ñu koy tàmbalee ba tey sama ndijoor lay tàmbalee ah, Euh, sëñ Ablaye. waaw dama bëgg nga wax ma kan mooy Mamadou Diop li nga xam ci moom nga wax ma kan mooy Mamadou hmm. euh, moom moo di askanoo ci ndakaaru gile ci lébu gi. Hmm. ci dundam yépp mu daldi des ca fa mu bokk hmm. fàttewul boppam wàccul àndam ndax ñooy juram dafa am lu ñu fi tekki woon ci réew mi mhm. jiitu ku nekk xam nga kuy Ousmane Diop Kumba Paté mhm. ak soxna si Ayta Njaay Njing mhm. euh, mu nekk xale dem ca daara ja teel dem ca daara ja ba noonu sax la yéexee dal école à douze ans fukki at ak ñaar mu soog dem école damay nag daal di taxaw ca loola ndax alxuraan daara nga jiital ko sa dënn mu sax sa xel ah. daf lay préparer ci dara hmm. ci lu sore hmm. kon yooyu dugg sa dënn hmm. leneen loo jàng day day yomb booleex nag nga jàng ci nekkin ci biir société bi ñu yóbbu la nga toroxaw di yalwaan am bàyyi boo xam ne kilifa di ñu teer la bu mag yóbbu la juróom benn at juróom yat juróom benn nga dem ma ngay dellu si pour daal école douze ans foofa ñu ngi lay defar loolu nag dafa feeñ ci dundam mu di koo xam ne dafa fonk xam-xam njàng ak mën-mën jàng la jiita jiitalul nekk mhm. jàng

bu ma tëbee gàttal ba ko yàlla di dénk mairie Ndakaaru mu nekk faax El Hadj Mansour Tambidou mii moom nekk maire moom nekk premier adjoint maire dan na assuré intérim ba ñu cee ñëw booba Ndakaaru maire ba amul woon dara ban année la woon mi ngi woon en 1984 mairie ba mi ngi woon dettu vingt milliards budget ba Agul sax un milliard <laughs> ñu jël ministère travaux publics d'abord nous mhm. ci santé 1975 1964 mhm. travaux publics 1975 1984 75 78 nous at mu

ba léegi lu ci bari ma nga fa des. mairie boobu nag nga xam ne fa la gën a yàgg ci liggéeyam. Mhm. nekk na fi député nekk fi sénateur nekk fi nekk fi avocat général nekk fi secrétaire général de la présidence de la république conseil régional et tout ça. 17 ans yooyu ma fa def. Mhm. li ñuy wax révolutionner institution bi. daal di ñu daal di ñoom ñi ñu liggéey ko ah, ñi nga xam ne ci ñëw daw fekk leen fa. Mhm. loo xam ne tax na nit soxla maire yi.

jënd oto. bu jar à peu près six millions loolee pour mu mën a ñëw di liggéey si. ci jàpp nag mairie ba. Mhm. nga xam ne fekk fa daanaka dara fekk di ko liggéey di ko liggéey war na xarañ bi ma lay wax ci liggéey organisation et méthode jël nga xam ne moom la laaj moom moo di uti ay ressources humaines fu mu ko mu uti ko nga xamee ne géomètre moo doon yore wala euh, technicien moo doon yore mbiru ville de Dakar moo ingénieur tech jëli leen ci école yi ñu génneen wala bu jëli leen ci administration centrale andi ñu ñëw non la def nak ci domaine yu nek bo démé ci ci ci santé mu mhm. défé nonu mhm. nga dem ci euh, gestion urbaine non mhm. administration pure administration administrative et financière non non non non non ko def progressivement ndax dafa gëm liggéey té xam lan mooy liggéey masha Allah je suis le président de la république juumul organiser le espace présidentiel bii de secrétaire général de la présidence parce que c'était un défi à relever muy ak woon ak njàmbaar te ni ñuy liggéeyee ba nga gis les grandes avenues ci les espaces verts mhm boo Nyom. ñoom ak équipe ak ñoom it Mansour Tambidou yile mhm. comme man directeur laa fa woon pour préciser pour prix maa yore woon éducation culture jeunesse sport hmm, la jiitu ne nekkoon naa conseiller technique ci diir bu gàtt nak ci comité urbain de Dakar Mamadou bolé comité urbain Mamadou job El Mamadou job à ville de Dakar commune de Dakar mhm. yore macha allah di ci liguey liguey booba ba ñu ne dañuy def commune d'arrondissement yi mhm.

bu fekkee ne dakaru ci li fi nekk dañu bëgg ku ci soxla ci sa wer gu nga dem hôpital lu fan wala hôpital principal wala hôpital Le Dantec wala dafay day war mën a antunuñu ko mu am boobu xal ne fu ci nekk dinaa ko def pour soulager population te jox leen service ba ca war way fal leen ko ci distance mu am des structures de proximité way fal leen ko tamit ci cour bi njëg bi loolu koo koo liggéey <laughs> defal nga lu bari population yi dama ci jukki loolu rek en attendant en attendant ñu dellu si waat daal di ñëw nag ci da <laughs> am na lu bari lu ñu ci mën wax parce que bokk dañu bokk plateau macha allah walaay walaay walaay xam nga li mooy li am solo mbir boo koy def da ngay fekkee da ngay woo ña ko woon ñu wax ji mhm. non seulement ña ko fekkoon ba pare ña xam ñu wax ci boo déggee sëñ Ablaye li mu wax dafa campé débat bi wane na xarañte gi kat gi mu doon liggéeykat bi mu doon wane na encore tamit visionnaire bi mu doon wane na tamit encore sóoroon na ni population bi day màgg parce que gis na ni Ndakaaru day nekk dëkk boo xam ne dafay màgg mu teel a préparé eh, sénégalais yi nga xam ni ëllëg bu ñu yokkoo nekk nangami habitant parce que bu ñu ay 7 millions d' habitants ñu jékki-jékki actuellement ñoo ngi ci ay presque 17 millions d' habitants hmm. kon donc sóoroon na lu bëri hmm. ci loolu dama ciy jàngat lu bëree baree baree bëri El Hadj Mansour monsieur le maire dafa melni ni euh, Ablaye dafa camper débat bi côté bobu ci wàllu liguey bi yéen ñi nekkoon ak mom di liguey Mamadou Diop naka la dan lié comment il est. Mhm. même bu fekk am nga loy cof ci li mu li mu li fu mais yow côté bobu yow nekkoon nga adjoint maire premier adjoint au maire yaakaar naa lu mu wax ci monsieur le maire rek mm. yaakaar naa ne ci wàllu liguey parce que mën naa ne poids bu mu yëkkati li ci ëpp lépp sa kaw la sa kaw sa kaw lay tegu kon yow waroon ngaa xam naka la naka la meloon ci liggéey bi. jërëjëf euh, Mamadou bu résumé rek. Mhm. damay wax ni république bi. Mhm. Mamadou mhm. république. ma wax ma wax loolu. Mamadou Diop nekk militaire. au service effectivement pour dire république Mamadou na avocat général nek na de président section si au niveau de la justice. oui d'accord. d'appel au cas général. Diop donc fi armée la c'est la justice. Mmh. du dëgg. Mmh. Mamadou Diop jogé na fofu nek na euh, secrétaire général de la présidence de la république. Mmh. ba tay si institution. république de. Mamadou Diop nek membre du gouvernement. du dëgg. Mamadou Diop nek député à l'Assemblée nationale. Mamadou Diop nekk sénateur. mais Mamadou Diop kay mooy Sénégal. waaw lu dëgg mu nekk sénateur. lu dëgg Hein? Mamadou Diop nekk na conseiller régional parce que conseil régional am na. lu dëgg Mamadou Diop nekk na maire de Dakar. waaye nekk na koo xam ni si li ñu créé muy communauté urbaine c'était la première fois moom fii. mu nekk premier président Moko, ko Moko, moo ko mm-hmm. créé du bon donc institution yi au Sénégal yëpp Mamadou Diop servir nako bu mujjé ci conseil économique et social. macha allah conseil économique et social fofu la génne àddina. en 1984. 2018 euh, ah, ah, ah, en 2018. 2018 2018 En 1984 la nek maire fa nekkoon maire 1984 ba 2001. donc 2018. ba nga xamné nak nag boobu boo xam sax demoon bay mu nek fo xamné fa la gëna fonk bopp. parce que fa la dëkk fa la yaayam dëkk. Mhm. nekk na fa maire yoof mu nekk maire yoof mhm. donc vraiment. Mhm. monde yëpp dañu mën a wax ni mooy Sénégal. mooy Sénégal effectivement ku nekk nag la mu fa def. danaa wax tuuti peut-être si santé li mu wax. bi mu jaaree santé la santé avant tout Mamadou Diop la. comité de santé yi ñuy wax tey. amul woon. si Mamadou Diop moo ko créé. te booba dañuy xam ne nit ñi néew nañu doole. ñuy war a faju mu taxaw si. mais il faut que ñu créer loo xam comité de santé bu ko defee population aussi ñu xiir leen si ñuy participer. Mm-hmm. booba 100 francs la doon doon. tey mu doon cent franc daan joxe. Mm-hmm. mu génn ay lu bëree bëri. Mm-hmm. tey yàlla yàlla moo am vision. waaw waaw dafa vision. du dëkk bëgg nag fi nga xam fa la dëkk parce que dafa jóge gouvernement. démissionner pour n'être maire. loolu yëpp muy dem ci muy dem ci mairie boo xam ni amul dara amul dara ah. amul dara ay ay det sax la bëgg bëgg goxam moo tax bëgg goxam boobu defe naa ne ñëpp xam nañu ko parce que boo xoolee euh, pencu Lebu yi bi nekk fii Medina moo ko mm-hmm. jëm ko tabaxaat dëgg la penc mm-hmm. mi sancab sancab ba sanc ba siège ba dëgg mm-hmm. ah mën nañ si wax yeneen yu bari yoo xam ne si biir fonk mbokkam fonk boppam man euh, dama siy profité tout pour gërëm la tuuti rek. parce que xam nga man dama bëgg nit ku fonk boppam. bi ñuy laa commencé émission bi ñuy wax tam bu ñuy wax rek nga ne man géwal laa nangam laa. dafay am dafay dafay xam. dafay bëgg boppam dafay bëgg boppam. Modou Diop dafa bëggoon boppam. macha allah mm-hmm. terewul nag moo am ouverture boo xam ni dafa large. Mm-hmm. boo xoolee ñi nekkoon Dakar. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom lañ fa jëloon ñuy liggéey. ñi si dëkk dañ ñi si nekk ndax doomu la bariwul. mais lui c'est les compétences qu'il voulait. amoon na xalaat ne man dakaar bu gën a def du dëgg beneen bi mu ànd ak ay bokkam si politique bi ñu baree bëri vraiment mu rafetoo te it ñu yaatu parce que mm. am na si loo xam ni euh, man am formation bu bari laa jëli si moom amoon naa noo xam ne xawoon naa am xadar mais dafay lay dindi cest à mm. xale dafay am yar may bi may ànd ak moom mm-hmm. collaborer moom politique boobu j'avais à peu près vingt-huit ans Mm-hmm. je suis aujourd'hui à 76 ans. Masha'allah. allah. <laughs> tàggoowuñu benn C'est ans. mais ñi wan man un bu qui mag. te booba ñoom ba du mbeng. te door ñooñu ñu nous na muy comporté mm-hmm. mm-hmm. te sa duñ ko jox responsabilité. dañ koy jàngal. muy man la dem ba bureau municipal nekk maire. dafa dem dafa ñeneen ñoo ko forcé nangam mu non non non jotagul. ndeysaan. te boobu dépassé naa 30 ans mhm. ah. mais boobu mu ngi préparé nit donc je crois que ñoom ñoo doon loolu effectivement vraiment mhm. boo xoolee xëy na dugguñ si ak mhm. c'est vraiment deux valeurs waaw foofu foofu sax. dañ ci foofu ah. vraiment buñ si duggee nag. Euh, mais mais vraiment euh, Diop. yàlla moo moi, ouverture amul kenn ko moy dara mhm. te gis man man amna ben bis il faut nek man bureau ni d'accord xaar dama lay ah, non c'est le maire vraiment <laughs> parce que diw non non wa, amna jaar <laughs> c'est pas possible je dis man boobu xal xam xal non non mënu ma ko nag mu ni ma xaar ma maa ngi ñëw quelques instants mu ni ma ah monsieur le maire de dem man du mun naa aj mm-hmm. comme ça ñu dem kër kooku mm-hmm. ak kooku la mu ko defoon ah. mu mm-hmm. mujj gi kooku xëy na loola daf dafa maanaam euh, dafa dafa yar kooku si ni ma ko doon defee dëgg la loolu mooy jikko sax ñoom xamuñu woon wax ñu ñaaw boo ko defee mu mu guux ko ba pare. mais bu lay delloo lu rafet la lay delloo. waaw loolu la ndeysaan en tout cas man j'ai beaucoup appris avec lui. te mën naa si yu bëree bëree bëri xam ne foo fu ñu jaar ak ay nit yoo xam ne ku mel ni Amath Dieng ku mel ni ñeneen ak ñeneen fi ñu jaar muy mag ñoo xam ne vraiment mhm. mag ñu baaxoon ay royukaay vraiment en tout cas xam nga xam nga xam nga loolu loolu loolu moo tax tey man ma kontaan trop li nga wax léegi nii mooy jikoy sang yonent bi sallallahu alayhi wa sallam turandoo dégg naa amoon na benn nit koo xam ni fu mbalit musaana am ci màkk day ñëw di ko xëpp buntu kër yonent bi mm-hmm. fu mbalit am mu ñëw këpp ko fa ba mu yonent bi toog ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam gisul waa ji këpp mbalit mun waa ana diw ñu ne ko diw di dafa feebar dégg naa julli sànn pare mu wax saaba yi nañ leen ko seet Omar bañ ni ko man du ma ko def moo tax bi nga waxee léegi <laughs> ji koy Omar nga def foofu te te beneen bi ma lay eh, mujjee wax rek mooy eh. kóllëre bi mu am effectivement ah, ah, ah, kóllëre dafa mm-hmm. amoon leneen mm-hmm. boo gisee kóllëre gi ma wax tudd naa amee yéen kóllëre bu ma amoon ku mel ni Doudou Issa mhm. wala Alaaji Ablaye Guèye mhm. mais ñun ñooñu sax dañoo am kóllëre boo xam ne amoon nañ ko ak Serigne Babacar Sy actuellement mhm. macha allah Mansour boo xam ni koor gu jot lu mu néew néew dina si am benn boo xam ni dañuy tëju tëju ak moom wari wa maanaam dogu ensemble waxtaan <laughs> macha allah <laughs> lu dëgg mais mu xam ay ay nit ay ay ay ay ay valeur am te léeg aussi dañuy tëju ak amet fo xamni ne fenn fo xamni day tang bu nit ñi yaakaar nangam lañu mm-hmm. guddi ñu mm-hmm. dem làqu fenn ci ko xamni ni amna la kenn du xam moom man Liba sek ak ñeneen waxtane fa lo xamni dañu yaakaar ñi nangam ak nangam mm-hmm. lolu moy vraiment moy valeur yi ñi amoon ah, vraiment lolu moy amoon mais en tout cas vraiment c'est un homme extraordinaire wax ak yoona bu agul kenn du xam fo jëm comme dama doon wax ci yoonante bi te oustaz ñi ngi may sétane way dégg ñukoy netti nettali dégg naa bi mu démé sét ko mu and ak saaba yi ñi dem dégg naa bi yent bi fëggee ñu ni ko kan la am ku ko ni demal ni ko Mouhamed moo lay seet dégg naa dafa jóg toog ni Mouhamed mi nga xam ne dama ni ma ko bañee ak lu bon ni ma koy def moo koy mhm. seet ne mhm. leen ko mu ñëw ñu ñëwee yonent bi ko sallallahu alayhi wa ko ah damaa gis ñetti fan rek gisuma la ma laajte la ñu ma da feebar mën naa la seet bis boobu la kooku dugg ci lislaam ni ashhadu an laa ilaaha illallaah mhm. moo tax li nga wax noonu ki la gën a bañ dee ko teral loolu ji koy sang la foofu laay duggee ak jaalo ci

ma ne ko lu tax mu ne ma kii bëri na lu xew ci ndakaaru moo ko téyewoon ci diggu loxoom ci baat mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ma xar baaxu ndakaaru yëpp ci loxo bu téyewoon boo gisee photoom dafa takk ay gàllaaj ba fees ndeysaan mm-hmm. maam Ousmane Diop Kumba naa photo ma ngi lébu yi di suñu papa ànd ak suñu papa ànd bu rafet ci li ma mën a seede ndax ko xamantene ne nañu 84 la nek maire. Mhm. jamono joju la gane adina <laughs> waaw kon lima ma lay laay netali mhm, waaw dëgg la de. respecté woon na sama pap trop mhm. joxon ko ciir ci maire bi. dafa mësa a ñëw sama kër yaay di seeti sama pap recevoir sama pap ba noppi. ko wa xali yi nekk ci kër gi yëpp jox ma sen tour ndeysaan. ma duggal leen ci maire bi. jël sama chauffeuru Pape jël xale yi. tey sama chauffeuru Pape def na fi vingt huit ans de service fa la retraité mi ngi fay ko retraite mhm. mairie de Dakar. macha allah. kon kooku dimbali nañu ci emploi. Ah, waaw waaw waaw waaw. lépp lu mu daan séddale lu jëm ci mairie bi ndax mhm. yéen seen jamono lu lu metti ngeen nettali. Mhm. man mairie bu neex laa fekk. yow bu neex nga fekk waaw. moom Dakar neex na <laughs> man boobu laa fekk. <laughs> lamp yi tàkk <coughs> espace vert yi di di di leer man loolu laa fekkee ba tey dañuy koy jooy nag parce que yàlla mayoon na ko mu bu toog fi temps boo xamante ne lu mu bëgg def def na ko mm-hmm. Mm-hmm. parce que léegi maire yi parfois da ngay par opposition wala nga nekk pouvoir parfois ñuy caler say projet mais mm-hmm. yàlla suturaaloon na ko ba duran li mu nekk maire yëpp lu mu bëggoon tëgg tëgg na ko macha maa ngi fekkee tamit benn régaat bu ñu tuddee woon sama pap am ay alaaji Ahmed Dieng tuddee woon ko sama pap Mamadou Diop am ci drapeau sama pap am ci drapeau comme ñoo mm-hmm. dëkkandoo woon fan résidence mm-hmm. dafa ñëw ne sama pap bu yóbbu sa oto ndeysaan maa ngi ñëwee ànd ñu wàccandoo ca barab ba xoolal loolu jour boobu bi ñu wàccee ñoom ñaar ndeysaan ñu tuusal leen mm. bàkk leen ñu xam ne doomu Lebu ak doomu Ndakaaru ñoo bi ñu tuddee affaire bi kon man lool laa fekkee mm-hmm. lool laa mën a nettali wallaay dëgg la dara manqué woon bi ñu Mamadou Diop nekkee maire sama côté pap mais est-ce bari na. ah xam nga koo xamante ne da nga gimmi. Mhm. gis ko. Mhm. dee moo leen tàggal. Mhm. ah <laughs> ñaata at maanaam maanaam dafa mel ni parce que 1984 góor gi ban année la la wàcc liggéey. 2013. waaw 84 2013 mun naa li nga dund ak paa yi bëri na bëriwul. sama pap sama mam la. waaw loolu la foofu laay waxee nag. <laughs> parce que gis naa ni parce que man 1984. waaw boobu man. Mm-hmm. maa ngi Sénégal Mirage j'avais 19 ans. Mm-hmm. amoon na fa riz Arma en grand. Mm-hmm. benn kër. nga xam ne sa papa dafa daan ñëw. bu musaani ñëw ci kër googu ay bot yu weex lay sol sol grand bu weex tàll nii. sol ay bot yu weex bu musaani génne foofu. di ñëw day ñëw biir Sénégal Miroir. may ñu xaalis. boobu man Omar Ciss Abdou Ciss dañ fa nekkoon di fa liggéey. mais musaani ñëw dafa ñu naan xale yi na ngeen def bàyyi nañ góorgóorlu. bu génnee rek muy def may man souvenir boobu foofu des sama papa maam la mhm. fekkeewu ma ko mu sol fekkeewu ma ko mu sol trëy mhm. ko mu nekk homme d'affaires man sama papa mhm. bi ma màggee xàmmee ràññee grand boobu laa ko fekkee ndax maa andi Serigne Dakar gi nag bi ma juddoo la Serigne Dakar gi ñëw xàmmee nga photo bi photo bi waaw waaw ah xaw na Mamadou Diop maire de Dakar ak sa papa. waaw ah, kii voilà. papa Mamadou Diop ngi ne la papa Mamadou Diop. ki ci digg bi nag laa xamul kan la. mais naa ni peut-être monsieur le maire dina ko xam ah, wala. <laughs> ko sori. <laughs> voilà xam nga lii pour dëggal li nga wax rek ah. dañ daan ànd ñoom ñaar daawuñu daawuñu daawuñu wéet daawuñu tàkkaliko voilà waaw mm-hmm. parce que dañoo bokkoon koñ. Mm-hmm. waaw Fadi Zidance. Mm-hmm. waaw di ànd yaa na nañ bokkee woon koñ nag. yaa nañ ko bokk koñ tamit ci. amiin amiin amiin benn témoignage rek. bu yokk foofu nga ñu bokk koñ. pour firndeel ko. ñaar sax laay mën a wax. Mhm. parce am na boo xam ni man dama mu mu jë maanaam Basiru dafa am soxlo mhm. wax ak Mamadou Diop Mamadou ni ko danaa la booleeg Mansour. Mhm. boole ko ak man mu woo ma téléphone. ma wax ko dama ñu ma ñëw man maay ñëw. ci OIFM waaw ah, ci OIFM wallaahi sama bureau. macha allah ñaari beneen bi. maa ak Mamadou Diop ñoo ànd. dem këram. du nekk fa bu nekk fa résidence de. bi nekk fii. ci église bi zone A ci église zone A. foofu la sama yaay dëkk. fa la ñuy toog. waxtaan waxtaan wu yàgg. sori. bu timis jot. man la ñuy jiital maa leen jiite timis.

li di wax dénominateur commun. Mm-hmm. léegi damay mm-hmm. damay jël sama papa El Hadj Mansour parce que li ñu naan euh, l'histoire euh, retiendra te El Hadj Mansour c'est le président des communicateurs traditionnels ñun ñuy tey bu ñu joxee cër ci àdduna bi yëpp grâce à sunu baay bu baax bi tax moom mi ngi ci ligne bi papa maa ngi lay nuyu Mbaye. Amadou Mahtaan Mbow Aram Dieng. maa ngi lay bu baax. Ndiaye Mbaye papa maa ngi lay nuyu baax di la ziar. man tam maa ngi lay ziar bu baax ak di la ziar. ndeysaan sama sama xarit sama papa ak ak di fàttali ko wax jeg ma waxoon. waaw waaw. bor nga loo waxaat waxaat ko bala may dugg. dama ni borom bitigu mbagg boo xar xolam magasin nga ciy fekk. communicateur traditionnel boo gis dafa ñaan yàlla mel ni El Hadj Mansour Mbaye est waaw ah, loolu moom loolu moom mooy li am kon mën nañu commencé de ndeysaan <laughs> mën nañu commencé sa wax jooju sa wax jooju dugg na ma loolu walaay Mbaye jërëjëf jërëjëf Mbaye jërëjëf yow yaay sunu papa asalaamaaleykum sunu mbokk yu ñuy déglu mhm. ci DTV mhm. may ziar ak di nuyu mhm. سيدي ابو بكر سي ابن علاج منصور سما دوم تروندو قالب جنرال تيجاني ديكو نوي بو باخ ياك مي ديغي دي ماي ني ديغ باخ بابا يور لاي ديغلو ديكو نوي بو باخ اك ديكو زيار اه دي زيار مولود سي ابن الحاج عبد العزيز اه ak njabootu sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp. ndeysaan. bu baax sang ba nekk ca Touba. Mm-hmm. doonu Serigne Bassirou Mbacké. Mm-hmm. bu xaadim Rasul. Mm-hmm. tey mooy xaadim Rasul. di sama xarit di sama soppe di sama sëriñ. dëgg la. ak waa kër xaadim Rasul yëpp. Mm-hmm. ak kilifa diine ci yépp mm-hmm. ak di nuyu it président de la république gardien de la constitution. Mm-hmm. comme ni ma ko koy l'homme des grands projets de l'État. du nuyu syndicaliste yi ci réew ak parti d'opposition yi ci yépp maa ngi waxtaana tey na ku rëy mhm. papa ci ndeyam papa balaa balaa ngaa sori madame Diop Matar dama lay présenter ñi nekk ci waaw. plateau bi am nga fi monsieur Ablaye Diop waaw monsieur Ablaye nga xam ni moom it nekkoon naa monsieur Mamadou Diop maire de Dakar pendant trente am nga fi tamit El Hadj Mansour Tambédou Ousmane Diop Kumba nga fi El Hadj Mansour Tambédou moom a nekkoon premier adjoint au maire Hadj Mansour Tambédou noo bokk turandoo. mi ngi noonu noo sa doom tamit mi ngi fii Diallo jaañ mu El Hadj Basirou Diagne grand serigne de Dakar. Diallo sama doomam. voilà kon ñooñu tey ñoom lañ seqal plateau bi papa. <laughs> ah plateau bi ko riche mbay walaay mbay. <laughs> waaw dañuy waxtaane Mamadou Diop ak Basirou jaañ bu baax Sénégal yëpp. Mhm. di waxtaan te Bassirou Marème Diop ba taar dara am ump ma dëgg la lu waral loolu Makhtar Diop mi maamam jiite na sunu maam Cheikh Seydi El malik Malick Marème Diop ba taar mi ko jur moom la Sidi Boubacar doon wax sama jigéen ba ca Ndakaaru ak ajoratu maam Yacine Diagne ndeysaan kooku man la daan jiital ci lépp ndeysaan dëgg la mbay ba du koy fal keroog hmm. Ismaïla Gueye ndey jaabur toog mbay bi tapay grand jaraaf toog hmm. Yaxya Diop président des frères Dakar toog hmm. Maodo Sile imaamu Rasib toog waa kër Cheikh Saadul Abi toog hmm. lu tax nu toog dooma ma ngi fay sëy ca géwul dëgg la waa kër imaamu laay toog hmm. lu tax nu toog hmm. dooma ma ngay sëy ca kër ga ndeysaan waa kër Cheikh Seydi Alhaaji Malick toog lu waral loolu doomam ba ngay sëy ca kër ga ndeysaan muy kenn ca sang bu tedd ba sëñ saaliwu mm-hmm. sunu baay ba sunu sëriñ ba mm-hmm. yan na yàlla yokku leeram amin yaa rabbal alamin basiru nag amoon dul jafej mm-hmm. lan la woon Ceerno Muntaga ما دون الشيخ عمر اي ايسان الحاج عبد العزيز اها دون الشيخ سيد الحاج مالك اك ما قام يباخي اها سيدي ابو بكر اها خليفه ابو تادبا اها موم ген ديغوني واخ انيفرسير با دغلا موم لو كورنجاتي ديكو وون غوفرنور جنرال الجنرال فال مرو اد كام اها نكو وا وخلو سو سوخلو ديسات موني سبا سوخلو اه خنا وقتان كوما اس جيخ بالي تاكوسان اها ناخ دا ما بغي جولي جي سا زاويه شيخ سيد الحاج مالك ما شاء الله كوسيدي ابو بكر اها moo demoon tëggeej seeti sunu yaay umu xayri sàll mi jur Seydi Jamil mu jur Mansour Jamil booba damaa Dakar fekk ko fa gouverneur de la circonscription Dakar Indépendance ni ko gouverneur général ne ni ko gouverneur général ne nga génn nga génn région du Cap-Vert mu leen déet ma maa jiite léegi ci jàkk ji mm-hmm. <laughs> ci këri suuf ah. ñëpp topp ma ah. kër amul sax foo jaar ndeysaan waaw ngeen bëgg nag ma jiite jàkk ji jiite xel yi mënta ne mënta ne <laughs> déedéet mënta nekk <laughs> xëy na sax su ma yeggee ah. ndakaaru ndeysaan جبر ريعون سي الاجي منصور شيخ الخامي بايو خليفه بي ها نيكو يكسنا ها بل سقينا دوتو تاك دكارو في درجه سغ بو تد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاي دغلا باي سيرنو عالم جين با امم الاجي بسوري جاج مريم نك اه كر اسماعيل جاي غوغو امم folo du ko joxe mbaxana mu rëy ma dëgg la grand sëñ de Dakar ndeysaan chef de la collectivité lébu ndeysaan mu mat ko sëkk waaw baayam alxaaji Abdoul Aziz ba nu yóbbu Momar Diop grand sëñ de Dakar ca mu gaañu alaaji Abdoulaye ah ndakaaru wéet na waaye kuy doonu mareem kuy doonu Mamar Jóob mareem waaye yàlla de ku baax la wallaay wallaay mbay ne ah Basiru Jaañ mën na ko ne ndeysaan mën na ko ne ndeysaan kuy Basiru Jaañ mooy kaw l'archet de la gardien de la constitution bi. Hmm. joxoon audience du président Abdou Diouf. dëgg la. Hmm. nu ànd ak kan. Hmm. Ablaye Ali Baata. ndeysaan. Amady Amady Ndiaye Samb. Samba Jabare. ndeysaan. Kaani Samb. Maada sa Samba Seck jabare ndeysaan na leen yàlla yërëm amin yaa rabbal alamin amin bay président Abdou Diouf wax ba pare ni ma ndakaaru day gi soow hmm. Mansour yow laay waxal ndeysaan waaye ku ne na doon sëy ndakaaru ci ñu hmm. ko moom hmm. Bassirou Diagne sax mën na ko doon waaw waaw ndeysaan <laughs> mais papa jëlma Ablaye Naar Poul eh. Bassirou Diagne doon na ko ndeysaan waaw papa dama bëgg dama bëgg aussi nga ministre de mu ngi tuddoon wan wan waaw ndeysaan ndeysaan léegi dama bëggoon ñëpp xam ko dama bëggoon papa eh, nga ñëwal ma tuuti nga ñëwal ma tuutam ci mama ci Mamadou Diop Mamadou Diop ancien maire de Dakar moom nga ñëwal ma ci moom tuuti ñu soog soog laa bàyyi parce que waxtaan bi am na solo trop Mamadou Diop Ousmane Diop Kumba Paate. Mm-hmm. Abdou Diouf woo Aram Dieng. Mm-hmm. ni ko mooy ministre des forces armées. ndeysaan. armée bi mu am ci grade gu rëy. ndeysaan. waaye dama ko bëgg def maire de Dakar ndax dana ko nangu. ndeysaan. Aram demal waxal ma ko Mamadou Diop. ndeysaan ajatu Aram Dieng. mu wax ko ko. Mm-hmm. Modou Diop ni ko nangu naa. ndeysaan. sa mbokk ma. Sali Bigué. papa. ku ñuy wax Juga Jeng. oh El Hadj Juga Jeng ndeysaan sama mbokk ma. moom la daal wax maire maire yi. dëgg la. Modou Diop ku ma paate. ah. Ousmane Diop ku ma paate. waxuma mm-hmm. ñàng ma. ndeysaan. é fidélité ba. ndeysaan loyauté ba mhm. sincérité ba mhm. envers le président Abdou Diouf moo ko yóbbu fépp ndeysaan ndeysaan ndeysaan saali ah, papa doom ju baax baax na wallaay wallaay alaaji Bassirou Diagne Marème bàyyi doom ju baax nag ndeysaan tudde ko baayam ndeysaan muy Papa Diagne ndeysaan ndeysaan Papa Diagne Bachir ndeysaan grand sëriñ de Dakar waaw ci tulibu ndeysaan macha allah fidwa mm-hmm. tab ga ndeysaan walaay walaay ak la baayam daan toppatoo ndeysaan ndeysaan lépp mu toppatoo ko yenu ko ndeysaan jërëjëf Mbaye mat ko sëkk rek. ndeysaan jërëjëf jërëjëf Mbaye. di nuyu sama doom jooju yi toog. Mm-hmm. Diallo Diagne. <laughs> bàyyi ma ko tuddee xaritam. Mm-hmm. Diallo Diop ma nga déggoon Fane Mbaye xaar Mbaye Issa Diop woy ko. waaw waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> ndeysaan. ak jabu Seck la Saint-Louisienne. ndeysaan. mooy doomu ndar ba Diallo Diop. ndeysaan ndeysaan. Iba Diop mareetu. Mm-hmm. <laughs> ñooñu nooy doomu ndar yu mag ya ndeysaan jërë jërëjëf papa kontaan nañ de moom <laughs> la tuddee kooku sowet ndeysaan ndeysaan xanaa ma wax tuuti rek ki xam ni bërki démb la ñu ko doon defal ca dëgg-dëgg cent mhm. mhm. mooy doomu Fara Ndiaye Mbow ndeysaan مو جاقي القران شكل الله دي مالك صل مجر ام خير صل ليسان ام خير صل موجود سيد مصطفى جميل ليسان ما شاء الله مو مصطفى سي جميل امم يا يا ني جام سي بسمو ماك ليسان موي كان ابريل لا واو واي برو لا جي تيجي جك كان اندبندانس واي اونو واو واو ca Senghor Hein ah Lamine Gueye yéeg ah Mamadou hmm. Je suis pas du président. Désolé. le oui ou le non Hum. oui pour rester dans la communauté française Hum. non pour partir à l'indépendance immédiate t il yéegoon ca Amadou bakhtar ma jox ko confiance ak Ablaye Gueye Kabri ak Ablaye lii mhm. muy Diouf Jaraaf mhm. ingénieur ba mhm. Amadou bakhtar Mbow ñu won don doon wote pour dem à la dépense immédiate ci la bok bokk démissionné parti bi moo Assane Seck bi agrégé en grammaire formé le prince Sénégal jërëjëf Mbaye jërëjëf <laughs> vraiment kontaan kontaan nañu lool papa ñaar na ci réew mi jamm amin mbay amin amin amin yàlla ko fi yàlla def amin yaa rabbal alamin amin mbay amin amin papa réew mi amul woon réew mi kii séeréer la déedéet wallaay wallaay wallaay amu fi woon kii joolaa la déedéet fi woon de kii wolof la ndeysaan wallaay amu fi woon ki li fi amoon njaay aha papa Lamine Gueye doomu ndar la aha Dakar def ko maire waaw Senghor agrégé en grammaire. Uh-huh. secrétaire d'État au gouvernement de Edgar Faure. Uh-huh. ñu def ko président de la république. xoolal loolu. réew mi. Uh-huh. amul yoon yooyu. déedéet amu fi woon de walaay amu fi bay. diw tukkuleer la. ah. diw pël la. Hmm. di kayoor yee la. ah. diw bawol bawol la ah amu fi de loolu amul Sénégal bilaay amul fi bay mbay jërëjëf kon jàmb ji xam ne moo fi am ah. yaa na ko yàlla yokk amin yaa rabbal alamin amin papa na ko yàlla dëgëral amin papa amin mbay amin mbay président Mamadou ah. wax na sang bu tedd ba alaaji mm. Abdoul Aziz ah. ni ko seen ñaane indi walaay dëgg la mbay walaay dëgg la. kenn xamul tukkulóor baag séeréer baag olof baag. joola baag walaay walaay walaay ñëpp benn la ñëpp benn la ñu woon jërëjëf mbay jërëjëf papa. maa ngi lay bàyyi nag ndax ñi nga yore. jërëjëf papa kontaan naa lool. di gërëm bu baax nag sama doom. ndeysaan. Bassirou Diagne mu mës a def man lay jiital. dëgg la papa dëgg la mbay. moo tax papa Diagne. Uh-huh. di ma wax papa. dëgg la dëgg la. loo xalaat. Mm-hmm. ndeysaan. ma ne ko nangam ak lay ndeysaan. mu jaar fa. dëgg la mbay dëgg la dëgg la. baayam. Uh-huh. man la yób man la yóbbu ndar. yow la yóbbu ndar. Mm-hmm. baayam. Mm-hmm. man la yóbbu Tiwaawan. dëgg la. baayam. ca sang bu tedd ba sëñ Saaliwu. ndeysaan hmm. baayam ba hmm. man la yóbbu maa wax dëgg la mbay doomam ji nag uh-huh. lépp lu xam ni Lamine Jaañ ma xam ni mooy magu Basiiru hmm. doon sama xarit dana ma ko defal moom itam ma ngi ci loolu jërëjëf mbay jërëjëf yaa ko moom yàlla ko yàlla may gudd fan amiin mbay jërëjëf di papa Diagne ak rakam jooju toog di jaalo. jërëjëf jërëjëf Mbaye. Ndiaye fii laa lay papa sa table ji jërëjëf jërëjëf Mbaye lépp yow la. lool. lépp yow la lépp yow la mbay yal na yàlla guddal sa fan. amin papa amin Mbaye amin Mbaye amin Mbaye amin papa. yàlla fi yàlla bàyyi. amin amin papa amin Mbaye amin amin Mbaye. ki moomoon ki moomoon DTV. waaw ba dem Barzak. laaj bin Baas Diagne walaay dëgg la walaay dëgg sa xarit. waaye yaa ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin amiin mbay amin papa. sama xarit ba. dëgg la walaay walaay walaay sa xarit la woon. ba rombee jàkk. Ah. wala juma. te ah. du wane boppam. ndeysaan. moo ko def. dëgg la dëgg la mbay. inauguré nañu benn ba mu paree. Mm-hmm. ba nu génn. Mm-hmm. ci lan di ma jàkk ji kat maa ko tabax maa ko def. yàlla ko yàlla yërëm. amin amin Mbaye amin papa jërëjëf. <laughs> ca barkeel doomam ak ay xaritam. amin amin Mbaye amin papa amin jërëjëf Mbaye. ak sa technicien yi nga àndal. jëf Mbaye jërëjëf yàlla na yàlla bàyyi la sunu kanam. jërëjëf Ndiaye. jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf jërëjëf papa. jërëjëf mi ngi noonu sunu papa El Hadj Mansour Mbaye le président des communicateurs traditionnels gis nga wax ji déjà dafa dafa dafa dafa indi demb indi tay ba paré manam dugul ci li nu war a waxtaane pratiquement dugg na ci té jotuñu ko sax briefing lolou mo lay wax ni wan ni mag du yàlla mais dafa yag ak yalla mhm. Ablaye yaa yoroon kàddu gi laata Pape Mansour di jël kaddu gi nga am fo nekkoon ah, mais kaddu yi Pape Mansour wax lu am solo la ci kaddu lay jëkkee mhm. mak ñi

boo ko ramené ci Mamadou Diop. Mm-hmm. ci it tamit respecté kàddu mm. ba muy euh, ba muy nettali bés boobu sengoor di ñëw. Mm. ci kër papam bay génn papam te ne ko kii moom mooy sengoor mm-hmm. dafa bëgg a sanc taxawal partie muy le BDS. Mm-hmm. le bloc démocratique sénégalais. Mm. ne ko dama bëgg. boo demee ba nekk mag. Mhm. tollu ca nga jàppale ko. Mhm. dama bëgg nga jàppale ko. Mhm. mu jàpp loolu. nekk ci nee na dem di liggéey ba bés ba nga xam ne foofu la papam di wàcc liggéey mu ñëw tiim ko papam ne ko maa ngi lay fàttali ma la waxoon. Senghor jàppale ko te bu bàyyee tamit kaka kay ut na ko jàppale. na nga ko jàppale. loolu Mamadou Diop fas ko. ndeysaan Mamadou Diop. lu ko dese woon fii ci réew mi ci garaat. ah président président rek moo ko. président de la république mu nekk ci rek. topp loolu. Ah, ndigal ndiggal ndigal. important ba noppi am lu mu ci dugal ci biir ñu ngi ci valeur yi de. Mm-hmm. ba ñu demee ñu mel ni man naan ko mais Diop looy xaar yooyu tamit am nga capacité bu nekk ci ma ne mais lan lay utati. wallaay doy lu dul dama war rek jëriñ réew mi. ana xale yi war a ñëw ca kanam. Mm-hmm. ñooñu la ñu war a préparer ñun dañ fa rek ne ko conseiller wax di wax. macha allah. loolu tontuñu ma ko man mii. ndeysaan. xam nga loolu tamit. Mm-hmm. valeur la. valeur la valeur la valeur bu riche. nekk ci nekk ci nekk ci doylu doylu parce que surtout doylu. doylu doylu. ñu doon nag kilifa yoo xam ne dañoo dal am sagesse. Mm-hmm. et Mamadou Diop. boo ko xoolee ci biir li nga xam ne moom la ko yàlla dénkoon ci responsabilité nga ñëw ci ville de Dakar. Mhm. parce que dama yaakaar ne foofu la liggéey na fa liggéey boo xam ne joxoon na ay leçons à la poster pour la postérité. effectivement xam nga civisme dafa baax. waaw dafa am solo. moom moom fi sos tàmbali fii set setal defar Ndakaaru. Mhm. ba ca ay jamonoom. dem na ba duggal ci waa Ndakaaru mhm. ñu wara am habitude tam di defar sen buntu kër di defar di rafetal effectivement loolu acte de civisme la c'est un bon réflexe e mu di jàngale tamit ci mhm. way yalla dafa gol dogal ba ñu fa jógee rek lolu dal di mab ah. mais c'est une leçon na ko ñu japp ne lolu mën na am ndax mom def nako fi def nako fi way lu nekk ah. ak ak ak jamono bi mu koy def sax boobu yombul woon. yombul te léegi mun naa ni ay yëf yi dafa yomb. li mag ñi di wax rek dafa mel ni léegi dañ naan bu fo for jafe eh, sëgg sëgg sëgg sëgg jafe. <laughs> mu bokk léegi sëgg for bi dafa yomb sëgg jafe. dafa mel léegi nit ñi léegi daal farataal tutuñu valeur yi fi amoon démb. ñii nag lii ay kilifa yoo xam ne. amuñu woon frontière. déedéet déedéet. sëriñ Ndakaaru. Mhm. El Hadj Bassirou Ndiaye ah Mamadou Diop. Mhm. kër këru diine bu ñu dugg. Mhm. fa ñu bokk. am na fa cër. am fa cër. loolu jikko la woon ñu nekk fa do jikko la. jikko nga am. Mhm. jikko bu melokaan woo xam ne. jikko xam ne. Mhm. foo dem dañuy ubbi bunt bi ba ci jàngu bi. effectivement ñoom c'était des weesu nañ sax républicain. waay waay vraiment ndax dañu di républicain ba noppi des ca di booli dajale. di marsale. macha mag ñooñu dañu yaakaar ne. bu fekkoon ne ñu ngi fii woon. yu bari xëy na. dañu mhm. daal c'est important balaa maa ñëw ci ci ci ci monsieur le maire euh, Mansour Ibou Seyni Thiaw laay. Mhm. xam moom mooy doomu xalifa bi sunu baay Ablaye caw parce que émission bi dafa doon émission boo xam ne dafa yaatu. Mhm. Ibou Seyni Thiaw laay moom it mi ngi ci ligne bi. ñu jël ko waxtaan ak moom it mu ñëw ci ci diggante ki nga xam ne moom mooy El Hadj Basirou Diagne ak ki nga xam ne mooy monsieur Mamadou Diop. Ibou Seyni laay laay Maodo Makhtar maa ngi lay ziar. sama xarit sama sëriñ sama soppe maa ngi lay ziar baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay. waaw wallaahi maa ngi lay ziar yàlla xam na ko. tey maa ngi dekk toog plateau bi monsieur Ablaye Diop nekkoon nag monsieur Mamadou Diop maire de Dakar nekk tamit ki nga xam mooy El Hadj tambi du moom nekk premier adjoint au maire ci jamonoy Mamadou Diop nekk tamit ki nga xam mooy Diallo Diallo Diallo Diagne mi ñi mi sunu baay El Hadj Basirou Diagne. di bàyyam ñooñu tey laa bokkal ah. plateau bi sëtu ma sëtu maam li maamu woote loolu for na Ibrahima ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi lay fay baax laay mu du maxtaar ci jàmm ci yamàggu yàlla ak baaxu rasulullah yal na yàlla def jàmm ci réew amin amin amin laay di ñaanal sama waajur Baye a ca xilaafa ga yàlla ko fi yàlla bàyyi amin amin yaa rabbal ak bëgg jàmm ak xam adduna ak ragal yàlla moo tax mu am doon ni Cheikh Mbacke ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay moom doomu Cheikh Tidiane si mu mm-hmm, am mm-hmm, mm-hmm. doomu si Abdoulahat Mbacké wallaay wallaay laay mu am doomu sëñ Mansour Ba xam sëñ Modou Moustapha Serigne Fallou sëñ Abdou Khadir Jeylani ñëpp billaay wallaay billaay laay Modou Makhtar loolu jàpp la dañ si war a roy di ñaanal sëñ amin yaa rabbal alamin amin di ñaanal suñu mbéy si Mansour yàlla bàyyi ko fi. amiin amiin laay. ak ak xalif généraux yëpp waaye ñu ngi ñaanal waa jàng bi seen koor gi la ziar di ziar waa plateau bi sama waajur yi toog foofu. ndeysaan ndeysaan laay laay. ak sama doom baay boobu toog maa ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla miy def jàmm yàlla leen yàlla. def amiin amiin laay Modou Makhtar laay amiin amiin. Euh, sama papa Basirou Diagne. Uh-huh. kilifa la woon nga xamante ne dafa amoon ñaanu mat. dëgg la. billaahi wallaahi dafa amoon ñaanu mag. dëgg la dëgg la laay. su ma ko teeloon rek boo ñëwee mënoon naa la dugal néeg bi ko Serigne Ablaye dugaloon. dëgg la. jël maraakisam jël kawas gu tedd nga jox ko ne ko solal Basiru. ndeysaan yow lay rek nga bàyyi Dakar. ndeysaan wallaahi yow ma ko yam ca ngoon yow lay neex moo tax charisme mu amoon ak li yàlla mën ci kàllaama yombuloo. dëgg la dëgg la. li ko yàlla mayoon ba bu waxee nit ñi déglu ko mu ne asalaamaaleykum sax ku doon taxaw ku doon wax di nga noppi déglu doon da nga koy déglu bu baax a baax. dëgg la dëgg la. li ko ka mayoon nag dafa amoon ñaanu mag ñi. xamoon lu baax xam yiw xam taraanga xam addina yàlla barkeel ko. dëgg la laay. maa ngi fàttaliku bi ko Abdoulaye Wade mujjee seet. maa ngi ci kër ga toog. ndeysaan. ba mu ñëwee la mu ko jox lépp lépp bi Ablaye Wade tourné dëgg séddale njaboot gi. wallaay wallaay dafa nekkoon yëpp xam nañ li ñu wax. wallaay dëgg la. yàlla dimbali woon nag euh, Serigne Mor nii sama mag ni doomu si Ablaye goroom la waaye man sama xarit la. dëgg la dëgg la laay. ku Alaaji Basiir jur rek xam nga ni Alaaji Basiir Jaañ suma xarit la sama soppe la. mu nekkoon exemplaire réew mi nag ci ka nga xamante ni àddina bi yëpp war na nañu teg ay kasetam comme Alaaji Abdou dégg Alaaji Basiir Jaañ dëgg la. lu mu mës a wax dëgg la duggul ci caaxaan dëgg rek lay wax te mm-hmm. jaamu yàlla tey dimbali nag ay doomu dëgg la laay kon dafa jot mm-hmm. tey jii réew mi mm-hmm. ñun am nañ ay monument yi nga xamante ne war nañu roy ci moom olof dafa ni kenn du guux essence di uf taal dëgg la de bilaay bu tàkkee yaa ko taal bilaay bu tàkkee sax doo mucc wallaay réew mi nañu ut jàmm te bàyyi li ñu fiy jéem a taal te bàyyi problème mu ethnie problème mu xeet amul solo. amul solo billaahi wallaay ku dugg bàmmeel yi nga xam ne problème mu xeet amul solo. <laughs> ndeysaan ñëpp perkal lañ leen di sàng lu waaye bëri doole doole doole billaahi. Hmm. ñuy borom alal baag ñuy sëriñ baag ñëpp ci biir suuf. billaahi laay Modou Makhtar. ku dugg biir suuf dees na la laaj te bu ñu la laajee la ñu lay laaj. Hmm. bokk ci ndax ban askan nga bokk dan lay laaj ndax jaamu yàlla nga am leen bi laay dëgg la laay bi laay dëgg la kon mbiso mbirum askan yi nar a tardé ñu amul solo bàyyi laay sama maam jële woon na ko fi walaay jële woon na ko fi de réglé woon na ko de boo ñëwee Cambérène Saala ku la ah. neex ngay takk. wallaay bu la neexee nga takk pël bu la neexee nga takk séeréer lu la neex wallaay lu la neex nga takk loolu yëpp bàyyi laay dëkk Diop alayhi salaam pour jàngale ko kon wallaay wallaay ñu ngi sant bu baax di ñaanal suñu papa Mamadou Diop moom tamit nit ku baax la woon ndeysaan ndeysaan sama soppe la woon wax na dëgg sama papa jooju doon wax léegi mm-hmm. wax na dëgg bi mu demee benn conseil dafa ñëw ci Baye Siri Diop Baye Siri Diop ni ko Mamadou jëlal réew mi jot na Baye Siri Diop waxoon na ko ndeysaan mi ngi noonu nekk yoof rek kontaan nga kon ñu ngi ñoom ñaar rek doy doon exemple ci àddina a ñu tombé anniversaire ka nga xamante ni soppi ñëpp la walaay walaay walaay ka nga xamante ni ñëpp ko bëgg muy Serigne Babacar Sy démb la seen anniversaire walaay nga xamante hmm. ay ay la ci saabaan bi bilaay yàlla yàlla leen ay xéwal amin amin laay yàlla yàlla def jàmm ci réew amin laay Modou Makhtar laay sama papa toog ak sama doomu baay laay Modou Makhtar xarit yàlla la amin laay amin amin amin laay amin nit ñi bëggante te ubbi xol yi walaay walaay coronavirus am na ci dëkk bi a bonang fi corona bañante ngi fi corona <laughs> jiw corona walaay wax nga dëgg corona wax lu a walaay walaay walaay laay mu yàlla jële ci barke <laughs> Maxtaar ah, laay yow yow yow yow maam rek nga doon ak sa baay bu baax bi di sëñ Ablaye Thiaw laay sa maam rek la woon na situation bu yàgg yow fu fa dugg boo santee njaay ak jaañ ak noo mënti sant laay laay Modou Makhtar kon moom rek la woon na problème bi bu yàgg mooy li ngay wax rek Ablaye Mansour di ko wax muy mag ñi dañu amoon sagesse ba pare dañu mënoon wax jëf ju baax hmm. mën wax ju baax xoolal sunu baay bi El Hadji Mansour hmm. ba léegi lii mu am ni dara mayu ku ko lu wax lu baax hmm. wax lu baax rek moo ko may li mu am lépp yàlla fi yàgg lool te suñu baay bi El Hadji Mansour Mbaye ñu ne kon xam nga Ablaye Sànq dafa am fu mu dugg jikko kon Mamadou Diop jikkoom mayoon na ko mu am accès ci ñëpp mën a waxtaan ak ñëpp kër gu mu dem am na fa néeg am na fa saal muy këru diine bu mu dem nee na ba ci jàngu bi kon loolu jikko la te yow nekkoon nga ak moom wax na dëgg jikko jooju mhm. am solo la mhm. ndax jikko moo ko may mhm. li mu am parce que comportement dafa am solo ci nit comportement yi li muy yàq bari na waaye li muy dafa bari. li muy dafa bari la effectivement. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg moom moom dafa amoon jikko bu rafet boo xam ne moo tax boo xoolee Ndakaaru. Mm-hmm. Pape Lamine Gueye. ku baaxoon. si livre bii ma yor ba mu jóg yor mu ngi si tekk Pape Lamine Gueye. ndeysaan daf na fi fukki ak juróom. Mamadou Diop képp moo ko jéggi def fukk ak juróom-ñaar. waaw 17 ans la def moom. Lamine Gueye Lamine Gueye waaw mo moi amul kenn ko nak ça, mo mu ko bo lolu mhm. jikko la jikko la mhm. ak na nga doon def ak nit ñi mhm. te Sénégal dëkk bu baax la wallaay Alaaji wax rafet lay wax Sénégal dëkk bu baax la na ñi nga ñoy safane dañu bari dañuy wax wallaay mhm. seen yëngatu moo bari mhm. mais ña nga xam ne ñoo baax ñu ngi toog seen kër mhm. ñu ngay xaar te loolu defar réew mi rek la ñuy wax wallaay te defar réew mi rek la ñuy wax te réew mi am na ay référence am na ay référence am na ay référence man jikko jooju foofu la ñu jaaroon moo ko fii dëgg la parce que xamoon na baay ni amoon na baay bi baay bi am na fu mu jaaroon ba fu mu àgg kii mu ngi koy nettali léegi ndeysaan lan moo taxoon baayam fonk Ousmane Diop ko bu paati ndeysaan du dëgg bon euh, Mamadou Diop kooku mënu ko jur muy def leneen déedéet te bokk Ndakaaru ba Jalaaw mhm. ba jëndeer nii lébu gi dëkk bu nekk rek am na fa mbokk mhm. macha allah du dëgg mhm. te baayam bu ma saa wax nit ñi déggu man nag yàlla moo def maag moom ñu xaw bokk ay lu ñu nuroo dëgg la parce que pratiquement daf la yara waaw parce que vingt huit ans nga nekk ci moom nekk jeune mu lay formé voilà pratiquement moo la yar boo xoolee mhm. moom papaam am na xam-xamu géej moo la woon mhm. sama papa moo la woon ndeysaan yaa Abdoulaye yàlla te ba léegi man gi laa nekk mhm. moom mu dem administration jàng si léeg-léeg ma daan téye mu ne Mansour toogal administration maa la ko gën a xam moo la waxee awal fii awal fii mool gi nag bàyyee naa la ko muy la am solo bon mon mon euh, maanaam jikko yi uh-huh. ba boo àndee xale doo ko uh-huh. iñaane maanaam dafa bëggoon uh-huh. ku baax di former ay nit jàngkat bu ko gisee comme Ablaye wax na ko si moom ak ñeneen daf leen di xëcc si moom effectivement mm-hmm. te it dafa amoon lu biir macha allah état dafa am nu koy yore waaw am na benn rek si ma jàngal yu bari benn rek dinaa ko si wax tuuti sax mhm. boo xam ni daf ma saw dugg mbiram mhm. ndeysaan wala ñaar sax boo xam ni am na koo xam ni si ma yi ko ji rek mhm. def na ko jëfin woo xam ni metti na ma ndeysaan mu dugg mbiram ñëw secrétaire am ni mu ngi nekk si biir ma ne ko waaw ma jël téléphone bi mu ne koo kan la ma ne ko man la maa sax mu ne mais yaa ngi may ma ne ko waaw d'accord dama la soxla ndeysaan mu pare woo ma ma ñëw taxaw pour dire que ni ñuy yéré xalit ma ñew taxaw hmm mu ngi tok ci bureau mu taxaw man ne ko man de la laa doon seet parce que dafa am rendez-vous bu ñu wara dem té amna na xamni fi délégation bu ñëw fi di la seet dégg na dégg leen di recevoir mhm. té diw mi mo jaaroon fi ak yow mo koku mom mo conduire délégation mhm. pour ñu ñew ndaysan nga jappalé leen mhm. dañu am soxla bo xamni fa ñu taxaw ci ndaysan man ne ko loolu moo indi te maa yow am nañu waaw moo xool maa ngi taxaw dé ñu nak dañu wara dem té ñoñu góoma ni jarna lool ah, légui nak liñu bëgg ñom da fugu de jeunesse mi ngi lay jàpp li ñu bëgg ñom <laughs> ah, xam nga xalé xam nga xalé day bëgg defante mané ko boko ko rek ma yow fi liñu taggo tàggoo ndeysaan indil ko ko problème da indil ma ko problème mu dal <laughs> suñu wër yi tek stable mu ni Mansour muy wuy mu ne ma yow kañ nga ma yapp bo nga dugg sama bureau taxaw di wax di ma joxoñ ndeysaan mën na kaa jéggal ma ma toog toujours pour wane xale xam nga xale yi tey du duñu réagir ma toog mm-hmm. mu ne ma gis nga yow li nga wax mm-hmm. ñooñu kooku ngay wax ak ñooñu bu fekk nu woon si ñoom la ñuy dépendre du fi toog tey ndeysaan yàlla moo leen teg soxla mm-hmm. soxla boobu dugal seen bopp nii da ngeen di dem Mamadou Diop moo koy fal moo koy faj moo koy faj mu ne danaa ko faj nag ndax yàlla donc donc la mu dindi si man keroog. Ah, ba léegi moo tax tu ma xëccoo waxatuma dara. waaw ah. boobu laa doon mën a yow daal baax na defar xam nga jàll. loolu mu si topp mu ne ma. Mhm. daanaka xam nga moom yàlla may na ko bàttin. Mhm. bureau bu mu toogee nii. Mhm. pour nga dem ja nga wiire ko pour déedéet. mu woo mu ne mu ne mën a kaay mu ñëw mu ubbi table bi mu nekk ñetti tiroir. mu ne maa ngi lay jàngal leen nag. Mhm. gis nga ñetti tiroir yii boo bëggee boo ëllëgee nga mën a yor. Mhm. nga nekk nangam. Mhm. tiroir bi si kaw. waaw bu mu xam lu nekk si bi si digg bi. dëgg la si digg bi lu xam mu nekk di suuf. bàmmeelu biir. bu boobaa nag. <laughs> Eh? di nga mën a nangam. waaw waaye lu ñëw dem. déedéet jamais. faut jamais faire ça ñett moom. yooyu mi ngi lay jàngal jikko mi ngi lay jàngal jikko tiroir bi si kaw daal la nekk si biir mu xam ku nekk loo xam nangam. jikko am defar jikko am détail lay jàngal foofu. pour te dire rek boo boo ay quelques facettes rek. macha allah bu ma ko doon wax fii tey ba émission bi jeexagul. Ah, am na yeneen yu des yoo xam dinañ ci mais Diallo. Ah. Euh, xam nga tamit dafay am man damay gisee suñu ñaari baay yooyu bokk nañu ay valeur mm-hmm. Alaaji Bassirou Diagne gis naa man sama maam ngoor Ndiaye sa pap moo ko yóbbu mag te daf ko fekk benn conférence. sama mam Ngor di madda ci yonent bi mu wolu ko ba ñew mu ne ko nga pat dina la mala yob mak sa Ngor dem ba af ba mak ji jupsi si alaaji Basiru Jaañ moo taal otoom booba amul mhm. di wër mam Ngor di ko wër ba fekk ci Medina Gunaas mhm. ñu ne ko fi la dekk mu ñew mu ne ko biye mak ba mala digoon mom la la indil si sa papa def na ci sam sen kaddu maanaam lu nu wax dee rek mooy tax duñ def kon donc bokkoon na ci valeurs yooyu nga xam ni mun naa ni bokk na ko ak Mamadou Diouf moo tax sa ñaari papa yi dama bëgg nga boole leen sa papa lan moo la gën a marqué ci moom ci diina li nga def ak moom nga nekk xale di ko gis mm. li la gën a marqué ci moom lan balaa may wax ci li ma gën a marqué ci moom mm-hmm. damay ñëw ci biographie am mm-hmm. ok macha allah parce que doomu ndakaaru la mm-hmm. di doomu lébu maam Marim Diom Maxtaar jur ko mm. ak maam Ëmët Diagne Mbaye Ngaye sama papa ci côté baayam péncam ñu ngi jekkoo jekkoo waaw ci côté maam Marim Diom boo ko tuddee tudd mbaaw mm-hmm. tudd barñi mm-hmm. tudd tëngéej tudd ndakaar ndax bànn ngoonee sanu may maam bànn ngoonee sanu waaw waaw mooy borom fukki taaw yeeg ñaar mm-hmm. kon maam Marim Diop Matar ndéegu ndayam hmm. foo laal bokk na ak ñoom dëgg la boo demee ci bàyyi maam Marim Diop Matar di hmm. Matar Diop hmm. fi mu bokk ba jëm ca kokki képp ku baax ci réew mi rek bokk na ak yow dëgg la bokk nañoo ak Cheikh Ahmadou Bamba ndeysaan wallaay bokk nañoo ak Djidi Mbaye bokk nañoo ak Diogo Kébé bokk nañoo ak Alaaji Malick ndax dafa nekkoon néeg boo xamante ne kilifa yëpp am nañ fa soxna

ndax da daan def tournée sama maam Mari sama maam Oumar Diagne daan def tournée. Mhm. maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru Musti. waaw borom Daaru. ñu waajal màggalam bi affecté sama maam Oumar Diagne Daaru Musti. Mhm. sama baay am na mag bu juddu foofu. Mhm. ñu tuddee ko maam Thierno Birahim Mbacke. askay macha allah. sama papa sëñ Basirou Mbacke lañ ko tuddee. askay sëñ Basirou. Mbacke. ndax sama maam Amad jaañ dafa mhm. amoon lien mhm. ak maam Thierno Birahim Mbacke ndeysaan taxul nag mu ne fii la bokk wala faa la bokk waaye lien walaay mhm. ak xaritoo ak tarixa bokkul déedéet déedéet sama baay barka sama maam nag Amad Diagne mu ngi des Kër Madiabel Kër Madiabel fa la des fa la bàmmeelam nekk ndeysaan ndax ba mu nekkee foofu di liggéey mhm. sama ñoom pap nekk fa mhm. ci wetam sama bàyyi nee na mu dañ daan tëdd bu guddi mhm. ndax nee gerte bi dañ ko daan jal bu di jal tubaab jox ko xaalis muy fay ndeysaan ñuy jal di jal di ne dañ daan tëdd ba guddi ndeysaan dégg juuti bu gerte gi ay sàcc <laughs> sama maam ne sama pap bu leen jóg bàyyi leen moo gënoon a baax sama pap rek dégg naa ndeysaan ca tabe ga ca tabe ga sama maam Amad Diagne ndeysaan moo gënoon a baax sama pap ndeysaan bu ñu yeewoo neen na bu ñu tëdd daan daan rëdd pour xam fi gerte gi yem mm-hmm. nee na bu ñu yeewoo gis ne gerte gi wàcc na lu bëri nee na ñi sàccoon ci guddi gi ñooy xëyaat di leen ko jaay papaam xamoon na ko de waaye da leen daan bàyyi ci biir oh. kon baax da ko donn moom mm-hmm. da ko donn da ko donn da ko donn bu nekkee tout tànk mm-hmm. la ko maam Réew Diop laxas yóbbu ko ci sëñ Mansour Balxaw mi est-ce boobu boobu état bu sëñ Babacar ñëwagul de dëgg la mooy bàyyu xalifa bi fi ne waaw sëñ Mansour ban xam dafa am lu ko yàlla mayoor moo lañ tuddee El Hadj Mansour Mbaye mi dafa am lu ko yàlla mayoor ak yow it mm. <laughs> mi ngi noonu Mansour Tambédou <laughs> ndax yàlla moom muy doo noonu dëgg la ku nekk li mu la may nekk li la may wallaay kenn du werante baatinu kenn déedéet waaye sa baat bi ko daloon <laughs> mm. <coughs> maam Mansour mm-hmm. moo ko njëkk ñaanal sama maam Marine Diop ne ko kii daal nangam ak nangam ak nangam ndeysaan xel mi dafa nëx sañ ma ko waaye loolu xel mi dafa nëx mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko andil ndox mu ne ko bës ñi ki tey de moo xelam ba bàmmeel macha allah te dinañ ko dégg te kenn ko naxati defe naa baatin boobu kon dëggal nga waxe Ibou Sène ji ni dafa amoon ñaanu mag ñi amoon ñaanu mag ñi macha allah sëñ nag moo ko dalal alxuraan macha allah bi mu amee juróom-ñetti at sama maam Birame Diop dem dégg ko sëñ Babacar teg ko ci loxoom bi mu ko tegee ci loxoom mhm. mu jël góor gi ëmmat lum mhm. ak góor gi Mor Seck ne leen na jàng. ndeysaan. waaye sama baay li mu amoon ci moom. Mhm. dafa maase woon ak al amin suñu papa al amin. macha allah Abdou Aziz al amin. ñu bokk seen lépp. ndeysaan. sëñ si bu ndoguwaat. Mhm. gerte caaf bi di jeet bi. Mhm. da jox soxna Asuka nekk wëral ma Basiru. ndeysaan nga yóbbul ko. oh bi mu daan ndogoo. ndeysaan caaf la daan ndogoo. ak dinjeer. ndeysaan. moo ko al amin bokk benn néeg. allah. kon xam nga relation boobu. waaye waaye waaye lu doy waar la. waay waay c'est humain. sama papa nag bi mu jógee Tiwaawan nga xamante ne fa la daloo ba ñu defal ko lépp. Mhm. ci la soog a dugg nag français. am 12 mhm. ans. macha allah xam nga kon mu ngi noonu moom Mamadou Diop ah. 12 <laughs> ans 12 ans la dugg français. ndeysaan macha waaye nee na xel mi ma amoon. Mhm. xajuma ci sixième xajuma ci cinq bi dañu ma doon tëbal. <laughs> fu ma dem gagné. waaw ah. ba nag ba ma demee CM2. maak Lamine Diack. ñoo bokk benn baax ndeysaan mhm. ndeysaan président def certificat mhm. Mhm. ndeysaan certificat rek la jàngam yow waaw certificat bag ji bu mag yi bu njëkk certificat mooy certificat bi mooy bagu ren mooy bagu ren léegi bi mooy bagu léegi bi ak ñaan ba koy maamam ñaanaloon ndeysaan sëñ Mansour ne ko sa xel mi kenn dootu la naxat macha allah yàlla may ko xel nag xel xel xel mën na mën na mën na mën nga ko am waaye nga mu rax caay-caay waaw moom xelam dafa rafetoon dafa rafetoon alaaj Basir Diagne waaw ngënendooy ah xel bu yiw Eh, eh, nu mu tëddee mhm. ñu jël sa benn bàjjen. Mhm. Adjaratou Ngoné Ndoye moom it dégg na ministre ci réew mi di doomi Tëngéej di mbokk di xarit di nit ku baax a baax a baax madame la ministre maa ngi lay nuyu baax a baax Adjaratou Ngoné ngi lay nuyu madame la ministre salaam wa maa ngi lay nuyu ma sœur maa ngi lay fay baax a baax a baax sama càmm. di la jégalu ci guddee gi nag. waaye lépp rek dama xam ne damaa xam ne yaa ngi ñuy suivre te yow bu ñuy waxtaanee monsieur Mamadou Diop di waxtaanee El Bassirou Diagne grand sëriñ vraiment yow boo ci dugalul sa kàddu mi ngi mel ni ñu togg ba pare togg defuñu ci xorom. maa ngi ci plateau bi monsieur Ablaye Diop ku yàgg ak ma monsieur Mamadou Diop. maa ngi tamit la at premier adjoint maire monsieur Mansour Tambidou moom it mu nekkoon ko xam ni moom ak monsieur Mamadou Diop Marème Mamadou Diop maire de Dakar ñoo nekkoon. ak ki nga xam moom mooy monsieur Diallo Diop Diallo Diallo Diagne Diallo Diop ñu ci ñu ci Diallo Diagne ñu tuddee ko Diallo Diop mi nekkoon xaritu Alaaji Basiru Diagne muy doomam nekk ci plateau bi ñooñu laa siqal plateau bi madame la ministre ma nga nuyoo. ah jërëjëf Talla Bigué asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. maa ngi lay fay ma ah di nuyu réew mi yépp nag. Mhm. ndax ñëpp ngi lay seetaan. dëgg la Ndoye dëgg la. kilifa diine ak kilifa aada. ndeysaan jërëjëf xanaa ni sëriñ Bay si Mansour sama wasila parce que ziar ko te tàgg ko itam nag ci kaat bi ñu yëkkati ndeysaan ndax ñi xas ba wax alaaji Mansour Mbay ndeysaan di tamit sama càmmiñ di sunu xilifa ñu ni tam di Ibou Seyni di sëriñ Ibou Seyni laay ndeysaan walaay walaay bu ñu xasee sax ba témoigne ñun amatuñu lu ñu war a wax bilaay dëgg la bilaay dëgg la ndoy xanaa kay li sama xarit ba di wax fekk mutul wallaay fekk mutul kay te ñaar ñi ngay waxtaan tey kenn ku nekk dañu am ak moom jaar jaar dëgg la dëgg la ñu ngi nuyu bu baax kilifa yëpp yëpp yëpp di beral nuyoo sëñ Muntaxa ndeysaan di taxas ci nuyoo nuyoo di nuyu bu baax na ñu nga bokkal plateau te xam leen kenn ku nekk dëgg la dëgg la Alaaji Mansour Tambédou ndeysaan du may nekk présidente union régionale de Dakar hmm. Mamadou Diop jiite région bi. Hmm. ñooy bokk tous les mardis réunion. ndeysaan macha allah. ba mu am juróom-ñaari at. amul benn bés bu nit. macha allah. talaata bu jot. ñu toog ci table mairie Dakar boobu. Hmm. waxtaane région bi. ba mu juróom-ñaari ati mandat bi ma tëkk. dëgg la. booba maa ngi cee ràññee ndeysaan xarit moom di Diop yu baax yi. ndeysaan. ñoom tonton Libaas Seck bu Patte ajot ay hmm? di njong laay grand dame ndeysaan ajot ay di njong alaaji am na jigéen alaaji Kora Fall bàkk yu fay boobu mu yor charbonnage ñu mag ñu mag ñu baax ñooñu ndeysaan bilaay bilaay alaaji Doudou Issa Niass ndeysaan ñu jiitu yal na yàlla leeral seen bàmmeel amiin yaa rabbal aalamiin yal na yàlla guddal seen fan amiin dooy amiin dooy El Hadj Mamadou Diop nekk maire Dakar hmm. jiite union régionale du parti socialiste à Dakar ma hmm, nekk présidente jeune bi ndeysaan maraña ay valeur ci moom hmm. valeur yoo xam ni hmm. bi ci jiitu hmm. mooy liggéeykat travailleur ndeysaan ci laay profité nuyu Ablaye Diop moomu toog nekk directeur de cabinet ci lu ñu xam ndeysaan dëgg la am rigueur am pas-pas ndeysaan réunion heure lay commencé heure lay tëj ndeysaan macha allah table jooju su ma fa daan toog Ndeye Jacques Diop ma fa yóbbu. Ndeye Jacques Diop mu baax ma nekk présidente am fii ci Tëngéej. ndeysaan union communale mu baax mu baax a baax moomu. mu teg ma ci union régionale de Dakar. Hmm. may liggéey ci turu région bi waaye ci baatam moom. ndeysaan. bu campagne électorale jotee. Hmm. bu bëccëgee ma nekk ak Mamadou Diop ba timis. ndeysaan ma dem Tëngéej ca Mbay Jacques ndax Mbay Jacques guddi lay dox. ndeysaan dox ak Mbay Jacques ba fajar. saa yu vingt et un jours campagne bu jeexee. Hmm. il faut ñu wutal ma sër yu rëy rëy ndax nag damay xaw a ràgg. <laughs> dëgg la waaye ma jàngee ci ñoom aussi. Uh-huh. pas-pas. Hmm. mais kàddu waaw surtout kàddu ñu doon nit ñu am kaddu. Mm-hmm. lu ñu la wax ne loolu la ñuy def loolu la ñuy def. lu ñu la wax dëgg la. président Mamadou Diop lu mu la wax rek. Hmm. loolu lay def. dëgg la. su mettee noonu la la koy waxee. su neexee loolu la la koy waxee. ndeysaan wallaay te it waxam bariwul li muy déglu ëpp dëgg la te ku déglu muus dëgg la li muy déglu moo gën a bari hmm. li muy wax wallaay te ku déglu muus soo àndeek moom campagne électorale hmm. wala réunion wala daje ak askan bi da nga naan fii toog mënul wax ndeysaan billaay lu xale tuuti tuuti mu toog déglu la note ndeysaan su dellu see joxe instruction hmm. day jël agenda bi di note def ay rond dina te def ay ron dina te ay def ba mu daj ci moom laa jàng su ma topp bi rek bi rek fay di noté waaw ndax nit ku baax day hmm. moytu ñu ne la yaa fi defoon lii wala yaa fi waxoon lii te doo ci mën a répondre bilaay bilaay dëgg la ndooy lay dëgg la ma ma daj ci moom tam humilité waaw surtout ça humilité dafa woyofaloon boppam ba danga naan ndax du kii mooy colonel Mamadou Diop est-ce que du kii mooy du ki ñu daan wax Doudou Diop ci ministère de la santé. <laughs> wallaay wallaay est-ce que kii mooy soldat bu bi. est-ce kii mooy maire Dakar bi tabax Dakar defal ko budget. ndax oyof. est kii mooy ki bëgg mbokki léboom fonk mm-hmm. leen jiital leen. Mm-hmm. danga naan ndax kii mooy Ousmane Diop bi Kumba Paate. ndeysaan. ku baax. Mm-hmm. ñu ngi rendre hommage ku am dignité. ndeysaan wallaay. ku yëkkati lépp bi. wallaay wallaay doy. te loolu su ma ko waxee rek. Mm-hmm. mooy tax ma nuyu alaaj Diallo Diop moomu toog. dëgg la. Diallo Diop Diagne mu Basiirou Diagne. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu. ndeysaan. di nuyu Pape Diagne Basiirou. Mm-hmm. sama càmmiñ sama xarit. ndeysaan. doon bàyyam. di nuyu Mouhamed Diagne. ndeysaan. ak famille bi yëpp. walaay walaay walaay. nuyu samay mbokk deret nag ba pare. dëgg la. El Hadj Bassirou Diagne fonk ma fonk ba lu ñu am ci ay photo bari xam ba sa photo yi bari. parce que saa yu may nuyu day taxaw. ndeysaan di laami soog man. ba nit ñi photo di ma niir <laughs> di ma xool. ndeysaan di ma tiitaroo. ndeysaan ba photographie dañuy tiiree tiir temps bu ñu jeexee. ma bëri ay photo ak moom. macha allah. bi may moom. Mhm. dafa solo Ndakaaru. Mhm. ànd ak collectivité la bu bi yëpp. <clears throat> fekk sama tëngee fekk sama taabu rafet. sama doom bu baax de nelaw. ndeysaan lu lay mu di ma jaale hmm. loolu la ma Pape Diagne fay bi sama baay bii gaañoo mu dajale collectivité lébu bi tout def àddunay oto def cortège bu rëy fekk ma ta ngi macha allah yàlla am boole ñoom te wàccu nu ma dëgg la dëgg la ndoy alaaji Basiru Diagne uh-huh. jël ji koy lébu mm-hmm. li may nuyoo Sénégal hmm. ndax lébu ku ñëw Ndakaar hmm. ñu jox la soxna waaw wutal la kër waaw waaw sàkkul la tool walaay walaay. <laughs> waa kon war nañoo rus tey jii. ñu toog Sénégal naan. Mhm. Euh, bii xeet. ak mhm. bële xeet. ñu ngi am lu loolu ñaaw na loolu ñaaw na trop. ana ak gën ak jàmboñ. ah kay. kon ñun lan la bëgg a wax ne mooy suñu ciment. way way ana suñu nation. way ana li lébu yi joxe bu jeex tàkk ba tey jii sax bu li bu bëggee suuf ñu ne ko jóge fi yow mooma suuf. ndeysaan. ku ñu ku ñu maykat soxna ba pare. ba hmm. daggal la tool dañ lay jox baat de dañ lay may baat. waaw waaw dañ la naan yaay grand sëriñ. mbaa ñu jox la kii dina la yaay yaay imaam bi. waaw waaw ñu jox loo xam ne ñoom joxuñu ko seen bopp. Hmm. ndax lii la bu soo la plus grande démocratie d'Afrique. dëgg la. ñoom ci seen biir dañuy yem rek te dañuy maase rek. Hmm. ma roy nag ci alaaji Bassirou Diagne moomu élégant. Uh-huh. waaw dafa rafet Diagne. waaw car macha allah. moo tax yow nag tu très élégante. tubaarkàlla ci moom laa ko xool mooy sama def mooy sama. te grande dame. xam nga El Hadj Basirou Diagne. <laughs> Ah. bi may toog table jooju may wax léegi ak ñoom Mansour Tambédou. Ah. ma nekk jeunesse laa am. ndeysaan. bi may jeexal sama mandat. Mhm. may nekk maire. xanaa mhm. boobu nekk naa xale. walaay xale nga boobu. moo war a toog nag ak ay mag. ndeysaan ay chef de quartier. Mhm. ay imam ndeysaan. ay kilifa ay notable mm-hmm. ndeysaan mu ne ma xam nga nooy def moom mm. Pape Bassirou Dieng ndeysaan mu ne ma da ngay da ngay dagg par fukki mètre da ngay dagg par fukki mètre par fukki mètre waaw boo daggee fukki mètre nga woddu ci mm. sol ci grand boobu musóoru ci sàngu ci bu ko defee di nga rëy wala <laughs> mi ngi lay jàng sañse <laughs> lii moo tax ma commencé di sol mbubb yu mag waaw ak musóor yi moto pour mën a jox respect ñi nga xam ne. dëgg la ñoom laa jiite te aw ma aar. ndeysaan walaay dëgg la walaay yaa rabbal aalamiin amiin Ndoye amiin Ndoye amiin Ndoye yàlla yàlla wane na ko ak yaa Seydina ci ñoom walaay walaay walaay jàng nag humilité ci ñoom. macha allah macha allah. li ñu la gën a duñu la ko wan ndax nga ca yàlla bilaay bilaay li ñu la rawee duñu la ko wan hmm. dañ lay déglu ba nga defe yaay borom xam-xam waaye xoolal loolu rek bilaay fekk li ñu xam xajul sax ci say mbokk bilaay walaay bilaay walaay dañ lay fonk dalal la hmm. ba nga buur nga ndeysaan su ma mësee ñëw di seet sama ma ma doo ci salle bi agsi ci néegu la may recevoir ma toog wax na man loo ne kenn fekkew hmm. kenn xamul maa joxe kenn xamul moo ma jox. bilaay bilaay. su ma génnee mu tiitaroo ma. xoolal loolu. soxna si topp si ñu di ma gunge. doom yi topp si ñu di ma bëggal. ndeysaan sama xol sedd mu yëkkati mbokkam. waaw ndeysaan boobu mi ngi lay jàngal jom. ñoom ñëpp ñu ngi may jàngal àdduna. ndeysaan ndeysaan jërëjëf Ndoye. lébu yi. Mhm. dañoo baax. dañu baax trop tey da woote panelu lébu panelu lébu walaay dëgg ñaar ay lébu billaay dëgg doy na exemple wallaay dëgg la ndooy dëgg dëgg la dindooy ànd ak dëgg la ndax hmm. jël décision te fekkul grand sëriñ hmm. alaaj Momar Marème Diop dëgg la ba këram la koy fekk laaj ko no ndeysaan wallaay kon ñu toogee tey ba boo toogee pale hmm. woo grand sëriñ mu fekk si la ah. kon nit ñu war nañoo mën a jël leçon ci lébu hmm. xam ne lébu joxe na lépp ba desewul dara ah, buñu buñu bu ñu xataloon mu xat de bu kenn xëccoo nag wallaay dëgg la nan bàyyi xëccoo bi waaw dëgg la li ñu bokk mënuñu koo séddoo dëgg la nañu waxtaane réew mi hmm, te bañ koo tonton dëgg la doy jërëjëf te sóor ñu ci nag ñun soxna yi. Mm-hmm. walaay walaay ñoo jur xale yi. bilaay dëgg la bilaay ñooy soxna yi borom kër yi. wax leen de. ñun ñooy goro yi. waaw waaw. te bu lépp bu lu metti amee. Mm. dootuñu gis benn góor ñun rek ñooy taxaw. dëgg la dëgg ndooy dëgg la. jërëjëf dëgg la maa ngi lay jéggalu. jërëjëf di déglu ñu nga toogal. macha allah di bu baax a baax di sant jërëjëf waaye daal mhm. jërëjëf xajul dëgg dëgg. ci ku ci ku ci nekk ku ci nekk rek xajoo sax ci bi. émission. walaay dëgg yàlla boole jàmm. incha jërëjëf jërëjëf Ndoye jërëjëf jërëjëf kontaan naa. Ah, kontaan naa ma sœur de valeur. ministre Ngoné Ndoye di sama jigéen wax nga dëgg kon xam naa ne kon maa ngi soog a xam élégance bi nga am te ñi ngi ko jëlee. Mm-hmm. parce que El Hadj Bassirou Diagne nit ku kooku góor googu yàlla na yàlla yokk ay leer. civilisation bi amiin léeg-léeg ma gis Diallo civilisé na lool. léeg-léeg ma gis Pape Diagne civilisé leen góor gi leen dab <laughs> waaw mënuñu nekkoon fu am solo ci góor ma nekkoon fu am solo. Mm. jërëjëf madame la ministre kontaan nañ lool. lool lool looy jërëjëf sama grande sœur la. Mm-hmm. di nuyu Pape Masson Mbaye mi njëkk a woote. wallaay dëgg la moom la. dëgg la la dëgg la. kon góor gi ak Ibou Séni Laay Ibou Séni Laay waaw mm-hmm. kooku moom ñoo bokk pap waaw yéen a bokk baay sama taawu pap lay dëgg la Ibou Séni mm-hmm. Laay mm-hmm. kon sama pap El Hadj basiru Ndiaye dafa nekkoon nitu valeur dëgg la nekkoon euh, opérateur économique xam nga biographie bi fi ñu toll nii dama koy résumer ndeysaan ndax woote yi bëri na te li nga wax rek. li benn ñaari góor yi. xajuñu ci plateau xajuñ ci xajuñ ci benn émission xat ak woote yi tamit xaw na xaw na gudd. Mm. xajuñ ci benn émission dëgg la parce que li ñu yéene pour wax ko yëpp sax xam naa du fi xaj. Mm-hmm. est def deuxième partie. waaw gëm naa ko <laughs> xalaat naa ñu <laughs> mais Mansour. Mansour il faut nga xam nga moom tamit moom Bassirou Diagne maamam. voilà Mansour Sall. voilà Mansour xam naa ne il faut ñu def deuxième partie. kon kon kon paa bi ci ndawam. Mm-hmm. Pape Doudou Diop Mousse. Mm-hmm. moo ko yar ndeysaan magee ko lu bari ndeysaan mhm. jàngal ko <coughs> moo xëy ne ko. ndeysaan bu bàyyee jàng bi yow xaalis ngay wuti. ndeysaan xaalis nga war a am. ndeysaan mu nekk ci loolu. mu nekk un opérateur économique. xëy liggéey na CFAO. Mhm. bu liggéeyee CFAO mhm. am lu fa xew. ñuy ñuy jiinante. ndeysaan dafa dugg oto dem seeti sëñ kër si. ndeysaan sëñ Babacar si. nee na bi mu yegsee dafa fanaan. ndeysaan ñu ne ko teg fàttu na mu fanaan ah mu yeewu wax dafa am nit mu jiin CFAO hmm. hmm. nangami million dafa réer mu jiin ma ko ndeysaan xaw ma fu mu jaar ndeysaan sëñ ne ko demal nee na muy dem hmm. mu waat ko ne ko Bachir mu ñëw nee na bu dëgg tànkam ne ko wuy jil nee na depuis boobu la fit nekk ci nekk ci moom <laughs> nee na musul ragal nee na bi mu ñëwee yaayam mi ngi yable woon Pa Dudu Ba mm. mu téye kafe téye ay yéreem na foogoon ne bu ñëwee rek dañ koy defee defeere ndeysaan mm-hmm. nee na mu ñëw tubaab bi ne ko problème bi jeex na nañ la fay li ñu fi am yëpp nga dem ñu dem rek kon mu xëy nag ne dootul liggéeyati nag waaw ah, waaw ci poste léegi liggéey boppam rek kenn dootu ko am kenn dootu ko engagé dëgg la mu xëy def quinzaine économique mm-hmm. balaa muy def quinzaine économique bi nekkoon na inspecteur de police. inspecteur de police. waaw waaw parce que dégg naa loolu ci góor gi Bassirou Diagne dégg naa ñu ne nekkoon na. nekkoon na man sax dañ ñu moon dañ ñu moon colonel xaw ma daal. non non inspecteur la woon inspecteur. waaw voilà parce que jàngam eggul li eggul ci ci yenn. effectivement mm-hmm. Mm-hmm. inspecteur la woon te boobu it bi doyoon na sëkk. waaw ah, doyoon na mm-hmm. inspecteur ak fulla bi. <laughs> waaw waaw <laughs> waaye maam Mariam ne ko ne sa liggéey. ndax boo nekk ci dëkk boo xamante ne koo jàpp. waaw yaa ko war a bàyyi. Ah, bàyyi munoo jàppee. nee na ma dem Màkka 61. macha allah ne yàlla liggéey bii may liggéey. bu dee sama njëriñ a ngi ci naa ci sax bu dee sama njëriñ nekku ci naa arrêté nga jox ma leneen nga jox ma leneen cey nee na mu toog ba bureau ba mais ne dafa am lu koy fatt di ko fatt nee na mu bindi démission am <laughs> bàyyi bàyyi te papa Ablaye Fofana mhm, ndeysaan fekk na ko fa mhm. dafal ko ay privilèges ndax coup d'état ba amoon mhm. ba bu leeree ba ñu falee Ablaye Fofana jour boobu ministre de l'intérieur dafa dafa proposé sama papa ay post ndeysaan sama papa Mame Marim Diop bañ Hmm. ndax da ko bëggoon jox benn kees boo xam ne tubaab ba ko doon géré hmm. sama papa ne ko sama maam ne ko yow da ngay jaawale sa poos ak poosu jàmbur doo laal kees hmm. waaw Pape Abdoulaye Fofana wax ko ne da koy def régisseur xaw ma ban dëkk mu géré prison maam réew ne ko yow doo gor guy tëj ay nit ñaar ñetteel ba mu ne am lu mu ko bëgg def ca ñaaxaar mu ne ko yow doole goo gën a am di jël sa yet di dóor baadoole yi doo ko doon oh. mu xëy démissionné ak privilégié yëpp billaay trop hmm. nee police bi sen démission bi nakari na len ba ci bëss ba lañ ko hmm. dé bo démissioné tay hmm. nañ nangu sa auto nañ nangu sa kër waaw na mu né ay ca jël len mu jël auto ba jël ay bagage am tuxu nee na jël bureau am nag ne bés ñi ki tey nag opérateur la waaw waaw nee fa la tok jël journal di lire consommer local Paris Paris Dakar mu né pourquoi pas nous xey dajali jigéni né ku am loy def ci consommer local idi len ko ci caisse économique bi ma def prix

nee na ma ma ma récupéré ci alal joo xamante ne. 5 mhm. millions lañ ma lebaloon boobu Daniel Kabou moo ko ko lebaloon. en mhm. tant que ministre de xaw ma la yéen ko xam. Mhm. nee na mu subventionné ma ci ëllëg sax. li ma defee sama compte fay naa ko. macha na mu dem noso ko. noso ko. jënd fa juróomi oto. ak i camion muy daw. waaw. muy daw. mu jógee ca loolu tëgg ay làmb. waaw waaw. moo njëkk fay. maam góor gi million moo ko jëkk addi ci làmp dëgg la dégg naa loolu affaire xeet yi tëggoon na làmb boo xam ne ministre de l'Intérieur da ko convoqué ne ko làmb bi rëy na diggante séeréer ak njaago wala jaalo dama bëgg dama bëgg nga wax ma ñaata nga ci ñàkk ak ñaata nga ci war a am fay la ko teg nga arrêté làmb ci <laughs> ndax dañ doon wax séeréer bi ak bii andi coow lu rëy waaw mooy làmb yi mu doon tëgg tëgg na ah. lamb yu bëri nag tëgg na lamb yu bëri mm. yéen a ko mën a seede macha allah mm. te boobu mm-hmm. stade yi toll woon ay arène moo amoon arène waaw ay arène du bakk sa arène ay arène la amoon ay arène boobu ah, lamb duggagul stade mm-hmm. waaye investir si dëkkam mm-hmm. am xarañteem ci dëkkam jaraloon na ko lu mu ci ñàkk bu ñàkk ko waaye buggul woon toog te du def dara te du def dara ndax daa na ma wax toogaay jigul góor déedéet même boo deful dara xëyal génn sa kër xëyal génn dem ñëwaat toog ndax loolu nee yaakaar la mhm. boo bàyyi sa njaboot génn ñëwaat sax yaakaar la waaw si samay nopp dégg naa andi na sama andi na fi mhm. Fabi Jackson James Brown James Brown James Brown moo ko fi indiwoon na ko fi mhm. James Brown waaw kon kooku parcours am parce que moom dafa nekkoon non seulement mais dafa nekkoon aussi dafa bëggoon culture dafa bëggoon culture dafa bëggoon culture dama ko woon sa wax lu tax doo làkk français mu ne ma sol yu may sol nii ak culture bi su ma làkkee français ah. day wàññeeku waaw waaye ku déggoon français la ndax ndax njàng gu njëkk ga trop trop mhm, trop mhm, mhm. kon mu nekkoon koo xamante ne nit ki bay wax ci moom da wax ci jaar-jaaram ndax xale yi jël ci moom exemple jël ci et puis valeur yooyu lan soxla si voilà parce que bi liggéey jotee liggéey na jom bi investir jotee investir nee naa la jëndoo daa ay ay taxi taxi yi nag dafa am dafa am dafa am lu ko ci dal <laughs> dafa xëy ñu war ko saisir xamul lu muy def nee na mu ànd ak Euh, benn xaritu Mbàkke Mbàkke mu yóbbu ko ci sëñ Fàllu mu gisee ak sëñ Fàllu mu ne ko oto yi de dañ ko war a nangu mu jox benn suuf ne ko sotti ko ci sotti ko ci oto yi dañ ko nangu dañ ko nangu <laughs> nee na boobu buñ la boo amee la nit boor mm. dañ la naan tax taxi yi dañ koy andi ci benn tali yi na est-ce que du woon sax boulevard du Centenaire mm. nee nañ ko ragalee foofu yëpp ndax banque ba fa la ne woon mm. nga delloo seen caabi nee na gàcce googu daal ñëpp xamee nañu oto yi ci oh, moom xajul ci moom vraiment jom jom hmm. mu dem uti ji ñaan hmm. nee na li ko dal ci ñaan boobu hmm. taxi yi bi mu leen bëggee jaay jaru dafa mujjee jël lépp maye fi ñu yi am na mag yoroon taxi Dakar ah, kenn ñëpp moo leen mayoon taxi ñuy <laughs> dawal Fall ndax dafa xëy bëgg cee génn waaw <laughs> ah, sëñ Fall bëgg jaay oto yi mënul jar mu jël oto yëpp maye <laughs> waaw loolu sëñ Fall ma nettali nag tamit li tax mu mënoon a maye suñu penc bi ci jekku xam ne suñu baay Amad Diagne suñu maam Amad jaañ am na fa cër ndeysaan bi mu demee mission yooyu mu dem dafa able woon place am pàkkam mhm. am benn xaritu pëlu Fuutaam xaw ma xaritu tukulóor bu mu ko abaloo mhm. bi mu ñëwee gis kooku njaboot ndeysaan da ko ne jëlal place bi ma may la wallaay moo tax biir jekkoo am na côté boo xamante ne lébu newu fa dëgg la mhm. ñi fa ne ñu ngi fa xam naa leen soxlawul ñuy tudd waaye loolu moo tax ñu ne fa dëgg la sama ñoom papa dugg ñu woon jekko kon teraanga yàgg na ci mag yàgg na fa parce que man xam naa jekko kër maam Moussa Diagne voilà fa lépp xew sama xaritu benn titre foncier la maam mhm, moo dagg foofu yëpp dëgg la dagg jumaa ji mhm. dagg pénc bi mhm. dagg place yi ndax li addi loolu bi peste bi amee mbas mi amoon ni tey effectivement ba ñu tuxoolee ko jële ko biir biir Dakar maam Alaaji Malick ñaanal leen ne leen tuxulee ndax dañoo bañu tuxu moo tax ñu tuddee ko Médina Médina googu suñu penc la ay hectare la waaye titre bi mm-hmm. ci maam Mboor Diagne lañ ko def moo suñu maam moo jur imaam Asmalik Diagne ñi tey ji imaam raatibu Ndakaar mm-hmm. ak ñu bëree bëri bëri foofu suñu pénc dëgg la léegi nag mm-hmm. xam naa ne sama ñaari pap yi. waaw dañuy waaw. ñu ngi pelloo boobaak léegi waaw waaw. waaye dafa mel ñu may bëgg a gañe nag. <laughs> non xam nga xam nga. waaw mais nag xam nga li ñaan li ñaan xam nga da nga am doon xale boo xam ne da xam. Mhm. da nga xam ni ngay ni ngay dribblé. waaw parce que fi nekk sa papa waaw pelloon nañu. ba am sax benn hauteur mais. voilà dafa mel ni. waaw da nga demee da nga demee ba xorom. Ah, voilà léegi nag <laughs> macha allah yow daay déglu ba laaj ma. <laughs> voilà tontu la. waaw dinañ biographie bi daal moom. waaw résumé naa ko. bi c'est important liggéey bi ñëw nga mhm. ci mhm. ñëw nga ci dundal bi mu doon dundal culture ak ni mu mhm. doon jàppale homme de homme de culture yi ni mu doon jàppale aussi sportif dugg nga ci làmb moo njëkk fay mam góor gi million donc làmb mais sport la sport bu ànd ak culture la dugg nga ci aussi tamit jom dugg nga si aussi tamit jaxasoo gum jaxasoon sëñ Mansour sëñ Babacar ñoo leen sëriñam waaye amoon na relation ak sëriñ Fallou dëgg la xam nga kon déjà parce que wax parce que wax wax da ngay da boo boo liñ ñaan wax ba mu àgg sax. Euh, maanaam nit ku mat dëgg dëgg dëgg moomu ko. dëgg la xam nga xam am na ku nekk ci ligne bi Mansour ligne bi. mu Diagne Mohamed Diagne mu Alaaji jaañ Diagne. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mohamed ñu ngi lay ziar Diagne. Hadj Salif bi ngeen sunu mag ñu ngi lay nuyu di la ziar. ngi lay delloo ziar baax a baax ba di kontaan lool sa woote di dox suñu diggante ak yow te càllale gi di Serigne Modou Niang. dëgg la dëgg la dëgg la. sunu mag sunu xarit. dëgg la Diagne dëgg la. dëgg la di nuyu ñooñu nga bokkal plateau bi yëpp. dëgg la Diagne ñu ngi lay fay bu baax monsieur le mu baax moomu ñu ngi koy nuyu. ndeysaan ñu ràññee ko lool ci jotaay suñu papa Mamadou Diop. ndeysaan xam na bu baax. dëgg la dëgg la jaañ waaye di nuyu koo xamante ne tey sama maître. Mm-hmm. day sama tuteur. Mm-hmm. daf ma yar day saan tàggat ma mhm. jàngal ma ndeysaan def ci moom lu bëree bëri bëri muy alaaji Ablaye Diop mi toog ndeysaan walaay walaay walaay Diagne bokk dëkk centenaire Gibraltar dëgg la Diagne mhm. su ma amee fit ñeme politique moom moo tax dëgg la loolu loolu rek laa mën a tënk ci moom dëgg la eh, di nuyu kooku toog di sama kilifa alaaji Diallo ndeysaan dëgg la saala bi nga jotaay bu riche ngeen am ndeysaan jërëjëf Diagne Diallo moomu toog day sama mag ci moom laa topp ndeysaan walaay walaay Diagne dama koo xam lool ndeysaan suñu yitte yëpp mooy di gëstu Alaaji Basiru Jaañ dundam. saan su ngeen ko dégloo mun na leen a wax loo xamante ne ci dund góor gi ak jaar-jaaram. ndeysaan. Euh, war naa mën a mat juróomi waxtu te du noppi. billaay dëgg la Jaañ. ni ma ko mënee. Mm-hmm. waaye fa tabaarakallahu mm-hmm. émission bi riche na riche boo xamante ne ku nekk bëgg ci participer. dëgg la dëgg la Diagne. ku nekk ak may woo ministre kilifa diine kilifa aada. ndeysaan jaraaf yeeg ndey jiree yi ku ne di ma woo pour bëgg dugg ci émission bi. bilaay bilaay dëgg la Diagne. ngir ñaari nit ñu baax ñi di waxtaanee muy sunu papa Mamadou Diop. Hmm. mi nga xamante ne wax dëgg yàlla bi mu fi nekkee askanu lébu yëg na ne maire bi fi nekk doomu lébu la. dëgg la. ci culture. Hmm. ci valeur lébu. Hmm. ci doxalin ñun ñu yaroo ci keppaaram man ak Alaaji Diallo Ousmane Diop doomam yi ma tuddee sunu maam Ousmane Diop Kumba Paate yar ñu. ndeysaan lu lay lu lay lu kon mën nañu wax lu bëri si moom di nuyu njabootam gi ñoom laafiya ak sunu jigéen ñoom maam Kumba ñoom. ñëpp ñu ngi di nuyu baax. Mm, mm. ndax benn famille ngeen jël waxtaanee ko. lu lay dëgg la. waaw Alaaji Sall bi Diallo tey dafa daj Mhm. dafa daj tey méthode pédagogique bi. jàngale si góor gi bu bees. <laughs> waaw waaw waaw. non tey tey gis naa dafa am lu mu mu jël ci góor gi. dafa wax bëmbëstal tey dafa bëmbëstal. <laughs> wax mu bëmbëstal. Uh-huh. tax na sax. Uh-huh. Euh, jaxase jaxase ko ba mu jaxase ay uh-huh. gën a xam ne. njëkk a tëgg. Robert ak Mbaye Guèye. jëlee jëlee làmb ci ci arène. ko ci biir stade. dëgg la. Basiru moo génne làmb ci mbedd. dëgg la. dugal ko ci stade Iba Mar fa njëkk ak Mbaye dëgg la. déedéet astafurlah Mbaye ak Double Less. ak Double Less. ba la ñuy xaar ba tey. mooy làmb jafa amoon daaw verdict ba la ñuy xaar. ba ba ba tey ñu ngi koy xaar. waaye xam nga da xool ne gis nga kum li ala li sunu sëriñ sëriñ yi bu seen cawlaay wax léegi. Mm-hmm. bu la yàlla dimbalee nga am ñaaru mag. fa tabaarakallaahu dara jombale te mën ngaa am lu ne ci àddina. dëgg la dëgg la. góor gi da xool fi mu jaar xëyul rek sotti jaallo wax na ko léegi. wallaay dëgg la. jaar na fu metti mooy baayam bu baax boobu ngeen di dégg dundul ak moom. ndeysaan. mu gimbi war a teral ndeyam. Mhm. góorgóorlu yàlla suturaal ko ba kenn neewu ko cam musta yendu fa ko dem sowee fu ko neexul. dëgg la. casier judiciaire ba ni muy fekk jee eh, ndeyam ju baax ja. Mhm. fa tabaarakallaahu nag nga xool mu jëntalu dundam ni ko yónni roofo hmm. góor gi bëggul ku dul yonti yàlla muhammad hmm. liggéeyal rasulillahi ba yonti yàlla ma yonti yàlla muhammad fay ko te fay bi man mii seede laa ci ndax man mii muhammadu rasulillahi lu ma tuddee sa alayhi wasallam wallaay wallaay dëgg la jaañ balaa may am ñaar fukki at mu jox ma paas ne ma naa dem ziyaare ji sama sama tur masha allah masha allah kon man foofu laay waxtaan ak yéen ci digganteem ak yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. digganteem ak yonent bi. Hmm? tax na góor gi ñi mu yóbbu màkka boo koy wàññi. wallaay wallaay alaaj ala bige ëpp na cent personnes yu ma xam jaalo mi xam leen. macha allah. ñu ma xam laa wax El Hadj Aline Fall sànq ba tey mi ngi may wax. ndeysaan walaay dafa émission boo xamante ne daf koy def Sud FM waaye mi ngi a dugg pour mm, seede. ndeysaan ni góor gi daan def ak ñoom ñi tagg yonent bi ak silmaxa yi. yi mm. nga xamante ne ay néew ju doole lañ. ndeysaan El Hadj Aline dina dugg léegi incha allah. kon nag dafa jaadu. kon nag dafa jaadu. dëgg la Diagne dëgg la. bu réew mi tolloo fii ci crise ndax ñëpp xam na ne réew mi fi mu nekk jaxasoo na. torop torop torop. réew mi politiciens yi pollué nañ atmosphère bi mm-hmm. Hmm. politique la ñuy dégg suba ba ngoon. bilaay bilaay. dafay jaadu nag léeg-léeg ñu indi figure yu mel nii. macha allah walaay walaay. waxtaane waat leen xel yi dal. dëgg la Diagne. xol yi féex. Hmm. ñu fàttaliku sunu ay valeur c'est important ñu ngi ndokkeel waa DTV bu baax ci plateau bi. jërëjëf Diagne jërëjëf. di ndokkeel sunu ñoom frère Jupiter ñoom bébé baas suñu jigéen ñoom ñëpp. ndeysaan jërëjëf Diagne. di ñaanal sunu papa benn baas yàlla yokk ay leeram. amiin amiin yaa rabbal alamin. alaaji Saala Bigé yaa ngi waxtaane koo xamante ne boo demee Touba. Mm. di nga ko fekk digganteem ak Serigne Fallou Mbacke ma ko newoon ne ñokket. Mm. ba tey àddina yëpp seen ko ñëpp xam ne kii mooy alaaji Basirou Diagne. dëgg la boo demee Tiwaawan di nga fa fekk digganteem ak Serigne Babacar Sy di nijaayam. ndeysaan wallaay. di nga fa fekk digganteem ak Alxaaji Mansour mi nga xamante ne moo doon sama Serigne maam Maram Diop Makhtar Diallo wax na léegi li dox ci seen diggante. wallaay dëgg la Diagne. digganteem ak El Hadj Abdou Aziz Sy digganteem ak Tiwaawan yëpp. saan waaye boo ñëwee Laayeen di nga fa fekk digganteem ak Seydi Maam Alassane Laay fekk fa digganteem ak Serigne Ablaye ba ci ñoom Serigne Ibou Séni mii xam nga Ibou Séni. Uh-huh. boo seet si njuru Alaaji Basiru Diagne ñoom Seydou ak Bakary la waaye da xool grandeur góor gi fa mu toll woon dafa dem wàcce boppam. ba maaseeg ci bu seen yi def ko xarit. wallaay wallaay dafa baaxoon di waxtaan ak moom di déwéog moom di ko yabal di ko yónni. ndeysaan ndeysaan jërëjëf kon loolu na ko kilifa yi roy ubbi seen i bunt. am na solo trop. tàggat seen i rakkat. Mhm. ngir bu ëllëgee bu nu fi jógee lii nga xamante ne loolu la ñu donnee ci mag ñi. Mhm. ñu inculquer valeur yooyu seeni i rakk ak seeni doom ba bu ëllëgee ñu mën koo doxal. dëgg la Diagne. ñu ngi ndokkeel réew mi yëpp. jërëjëf Diagne. di ñaan yàlla alaaji Basiru Jaañ ndeysaan amin yàlla yokk leeram fa mu nekk amin Jaañ amin Jaañ di ndokkeel suñu mag jooju alxaaji Jaalo ndeysaan ndeysaan di ko wax ne nag di la wax ne alaaji Saala bi nga tax nga beneen débat juddu bu subaa maag Diallo dañuy yendoo werante <laughs> ndax ci biographie bi am na xam-xam bu bees bu mu wax bëgg naa xam fan la jóge dinañ ko eh. waxtaanee insha allah macha allah jërëjëf Diagne ñu ngi leen di ziar bu baax di kontaan bu baax di ñaanal Mansour Sall moom nga xamante ne suñu jarbaat la nekk foofu ci kër gi dëgg la dëgg la Diagne dëgg la mu dig leen ngeen jikko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf Mohamed jërëjëf jërëjëf Mohamed Diagne xam naa ne suba yaag yaag Diallo moom seen règlement de compte moom bu yeboo rek duy leen seeni poche xaalis ma jaar fa ngeen may ma ma dem man sama yoon nekk xam nga <laughs> xam nga xam nga dama wax léegi sama papa. Uh-huh. digganteem ak sëñ Fallou. ndeysaan wallaay. sama papa bi bi sëñ Babacar di faatu. ndeysaan fanweeri at laal. ndeysaan. nee na mi ngi ko njëkk jox addiya cinq mille francs. ndeysaan. te sëñ Babacar dafa nekkoon ku reconnaissant nee na ko mës a jox addiya. na ku koy bind. tontu la ci lettre. da koy bind lettre baa ngi sama yaay denc. macha allah cinq mille francs. te am na solo digganteem ak sëñ Fallou nag li ko andi. Uh-huh. sama maam Marim Diop dafa jóge bi yenn kër maam Matar Diop. Mhm. fa Félix Faure. Mhm. dem dëkk Rue 10. Hmm. sëñ Modou jël benn kër. Mhm. jox ko sëñ Fallou dëgg la sëñ Fallou ñëw di dal ci kër gi. gan bu ñëwee dañ lay teral. maam Marim Diop di ko teral. waaw waaw. daan na wax ndakaaru laaxu Marim Diop Matar. waaw mooy tax ma namm ko dëgg la. sama bàyyi nag mu nee na moo daan téye yenu laax bi. ndeysaan rakkam Moustapha Diagne téye soow bi. Mm. sëñ Fallou bu nekkee Dakar. Mm-hmm. sama maam Marim Diop koy toggal ndékkeem tous les jours. macha allah xam nga loolu. kontaan naa di jàll. relation la. waaw yéen ma xam naa ne sa maam la nuy waxtaanee <laughs> waaw. voilà xam naa ni ah kan euh, ah, dañu am ku dañu am ku ñuy jël. ok ah ok ok ok moom tamit euh, géwélu Mamadou Diop la. mom Mamadou Diop job ko jëloon maire yi maire yi de Dakar ok ku ne koy tàccu mhm. tàccu waaw xamni ni Mamadou Diop ci li ngeen di wax ci modestem xébul won kenn mhm. ok da daan tàccu bu Mamadou Diop ne ni ok di tàccu daf ko impressionné mu jël ko maire ah, mhm. ok ok ngi lay nuy sama mbokk sama xarit ma ngi lay ziar bu baax ah Alaaji Sall bege ma ngi lay nuy di la <laughs> ziar ma ngi lay delo ziar mon frère yow ni ku baax nga ku bëgg sa nawle nga deug la deug la deug la mon frère yow bala maa ñëw ci moom Mamadou Diop yow dama lay gërëm parce que yow yow yow yow yow yow yaa bëgg sa nawle. yow yaay man maa yow <laughs> ay mbokk lañ. mën a def lu baax. yow yaay sama mbokk nit mbokk. bu mu daje lu la jox doo ko def ci sa poos da ngay séddale ba ba jëlaat sa xaalis di ko séddale waat. dëgg la looloo yoon. waaye am na ku ku baax ku nekk ci plateau boobu ñu koy wax Ablaye Diop. saan mi ngi nii toog. ak Mor Mbaye meeru Grand Yoff. Mm-hmm. ñooñu ay wóolëre Mamadou Diop lañu. dëgg la. ndax tolloon nañu ay temps yoo xam ne. Hmm. Mamadou Diop nekkatul woon maire Dakar. ndeysaan. gisatul woon kenn ñaar ñooñu la doon gis. ndeysaan. muy Ablaye Diop ak Mor mbay ndeysaan. chaque àjjuma ñooy demandoo tàggandoo. ndeysaan. ba ci dernière àjjuma bi. Hmm. ñoo fa daje. ndeysaan. góor gi di leen gërëm di wax seen seen fidélité ak seen gore mm-hmm. gërëm mu boobu jooy ndeysaan ma jooy mm-hmm. maa ngi ànd ak sama soxna mu ne kooku yow xamoo sax jëkkër di nga am ci il est très fidèle avec moi ndeysaan walaay walaay ma nekkee maire de Dakar xaw ma woon ñuy waaja waaye Ablaye Diop Mor Mbay mm. ah, ñii ay gor biir lañu ndeysaan dëgg la mu nekkoon ku baax ndeysaan dama ko daan way nan ko mer bu baax day sakal boppam matériel ya mu mu Diop dafa sakal boppam matériel. waaw waaw yaa ko dan wax de. waaw munima munima ning ma way jey loma ma. lu mo ma sa am suma aduna mako ko bu mu nekkee gendarmerie nekk gendarme bu mu nekk commandant salu hmm nekk colonel réserve à la gendarmerie. hmm jang ba jangal le droit nekk docteur en droit. hmm nekk ministre de de de la république. Mhm. première poste am mooy secrétaire général à la de la république Senghor def ko. dëgg la. mu jóge fa nekk ministre transport. Mhm. car rapide yi daw moo ko fi indi woon. ministre transport nekk ministre de l'habitat. Mhm. defar dëkk bi ba parcelle ñu tuddee ko les de désert. dëgg la. bu mu jógee foofu ñu dem yóbbu ko ministre de la santé bi ñu yóbbu tey Ablaye Diouf Sarr. Mhm. moom moo yar Ablaye Diouf Sarr. dëgg la dëgg la. muy jar baatam. Mhm. ndax ay ca jaay ñi ngi rek la. Kouré mhm. Diène. Maam Sow jën Maam Sow Diène moo jur Awa mu jur Ablaye Diouf Sarr. dëgg la. muy nijaayam moo ko may bourse mu jàngi faraw. dëgg la dégg la mon frère. fa doon kaatar. <laughs> jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf kontaan nañu. bu ñu ñëwee nag maire Ndakaaru. Uh-huh. ma topp ko di ko tàccu muy campagne. ndeysaan. dafa gañe rek. Mm-hmm. daan may embauché. macha allah. jox ma salaire ba nekk ni maa ngi fayoo. macha allah. daan may daal daan daan may wan ci bi. sallallahu alayhi may ma oto. waaw ah, waaw. jox ma chauffeur di ko fay. xoolal loolu. ba nu mu deewee. macha allah tabaski maa moom ñooy nekk. ndeysaan macha allah. damay bàyyi sama kër. Uh-huh. ñëw tabaski ak moom. dëgg la loolu yàgg na ci diggante. géer ak géer maam baax lool madame ah, Sabel Gueye. dëgg la dëgg la dëgg la. ak taaw maam Kumba. jërëjëf kontaan nañ de mo frère Kumba Diop ak ak ak Lafia ak Ousmane Diop. ta ta ta bee ñu xoj rek. mais tey lañ ko waccel kaamil ñaanal ko. jërëjëf. Euh, Tambaaw jërëjëf jërëjëf <laughs> wat ko kaamil ñaanal ko ci océan jërëjëf kami yi bari na lol ci jumaa Yoff dina gëna bari ma sha allah mo frère jërëjëf ok di ñaan yalla yalla yalla yok leeram amin amin ya rabbal alamin amin mo frère TV jëm kanama ah. amin jërëjëf jërëjëf <laughs> amin way amin amin bi nag bu ma ci taccu wul dina jox fu mu dëgg bo mu ta fu mu ta jóor ma wa mais taccu rek tàccul ma dégg mer bu baax uh-huh. tey sàkkal bopp non da ngay joxe téléphone bi ñu téyel lako waw Mamadou Diop daasakaal boppam jërëjëf bi mu toogee jërëjëf jërëjëf bi jërëjëf ok. Ah. jërëjëf tabax na eh, waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf mi ngi noonu waaw xam nga nag wax dëgg yàlla bu ñu defoon émission pare te géwélam wootewul dëgg-dëgg dafay des. te géer gu baax gu ne euh, bul wuti géwél defaral géwél bi nga nekk rek ku ko ñee ñëw géwél ak géer mhm. bul dem di wuti beneen géwél géwél bi nekk sama defar ko rek ku ko ñee ñëw mhm. émission bi daal yaakaar naa dina nekk dina am il faut mu nekk émission non Mansour foo ñu def ko deux parties parce que lii moom lii moom doy Bassirou Diagne xam nga lu ko waral xamu ci deux heures temps xam nga lu waral loolu uh-huh. ñaari baaw baab waaw nga bëgg a deddale c'est dañ doon bañ anniversaire yi rëccuñu affaire bi rëy na lool émission bi. mais sama téléphone bi. actuellement parce que Mamadou mhm. li mu liggéey ci dëkk bi. billaay walaay billaay Diagne ñu ko fàtte ñun la ñu tombeel. dëgg la Diagne. Mamadou Diop Dakar neex na wayam boobu. waaw ñun moom la ñu waaye bi nekkee xale. wallaay Dakar neex na Pape Bassirou Diagne tamit. <laughs> wallaay wallaay wallaay. di sëriñ Dakar. mu ni ñaari doomu Lebu yu am. billaay billaay dayo billaay ñu boole leen foofu sax nag ci la d' abord moom mooy comme damay dernier tour de table bi ci mbokk gi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mamadou Diop ci Lebu ak ay mbokkam. waaw waaw daal moom. Mm-hmm. moom mooy plateau bu mujj bi naka la nekkoon ak ay mbokkam parce que gis naa ne ku ku jaxasoo parce que ok wax na ko léegi. Mhm. Ablaye Diouf Sarr jarbaatam Ablaye Diouf Sarr ko jël. mais mhm. malheureusement dañu am après mhm. ñu ko jël. mais Mamadou Diop ci ay mbokkam. Bassirou Diam tamit ak ay mbokkam. Ah, parce que ñaar ñooñu. li tax ñu boole leen. am na lu tax ñu boole leen. ñoo bokk ay valeur kii dem le vingt cinq kii dem le vingt six. ba pare ñu bokk lébu gi. moo tax date bi. bokk koñ échappe ñi bokk ñu bokk koñ. bokk mois de mars. moom mi bokk mois de mars. kon <laughs> donc li leen boole. dafa bëri mënuñu woon a rëcc le 25 ak le 26. dafa bëri bu ñu bu ñu ko jëlee woon rek. dëgg la dootul dootul saf. dootul saf dëgg la moo tax ñu mais ku ci nekk. Mhm. doyoo ci benn émission. wallaahi azim Mamadou Diop ak mbokkum ak ay mbokkum ci lébu gi. Ah, Mamadou Diop dafa wàccul àndam. Mhm. Euh, mu daal di sax ci askan wi. ñu mhm. bokk ndooma tànk yi wax nañ ko bari na waaye lépp lu lébu wootee fii waxuma ci Ndakaaru gi ci kaw weer andi ña ca la nga xam ne moom mooy wàllam yàlla dogal yi tamit mhm. ñi xam nañu ko moom baayam eh, ndey jàmbur la ndeysaan moom muy ndey ji réew hmm.

fu ñuy tuuree ma nga fa mhm. fa ñuy dajee di defar ma nga fa ah, te la nga xam ne mooy place bu symbolique bi nga xam ne mooy pencu Ndakaaru mhm. ca sanca ba mhm. moom moo ko tabax taaral ko taaral ko siège bu am solo siège ba c'est kooku c'est un symbole pour wane rek ne fàttiwul fa mu bokk fàttiwul cosaanam fàttiwul cosaanam nag mu am jikkoy lebu nag ubbeeku yaatal parce que yooyu ay qualité lebu la le public bi dafa dafa ki ci loolu sax ca loolu dëgg la mamadou dañ daan toog hmm. toog naa rek ji mu toog table bi plus de 25 30 personnes. Hmm. monsieur le maire a ngi tous les lundi réunion de coordination rigueur bi ngay wax. 8 hmm. h la ñuy commencé. 8 h du matin 8 heures. directeur ku tardé booyu boo nga bañ a ñëw. avec monitoring. L'heure, c'est l'heure. L'heure, c'est l'heure. Le monitoring bii ñuy ku service bu direction bu nek da nga projet wala dañ ko def à la semaine ñu régulièrement mm-hmm. mais jotaay mm-hmm. y di ay cadre ay élu ay chef de service ay directeur mm-hmm. tok table bi sama parti politique PS monsieur le maire mm. du kenn fan nga la neex nga ministre seetul kii ban région la jóge ban waa solo bokk. Mhm. fu ma askanoo seetu ko. wallaay wallaay. c'est un républicain. bari na mhm. bokk mi kii mere sax ne ko Ndakaaru gi jox ko waa Ndakaaru. waaye jël na ci Ndakaaru waaye jël na ci feneen du Sénégal loolu dafa di lu am solo. wallaay. la. Mhm. am na taxawaay républicain tamit ci lébu. ma bëggoon rek balaa ñu fi jóge. incha allah. xam ne ne réew mi. bu fekkee ne da ko bëgg. da ngay fàtte sa bopp tuuti. ngay fàtte sa bopp. c'est très important. bokk na ca mandarga kilifa yi nga xam ne ñu moom bés bile moment bile. Mm-hmm. Mamadou Diom comme Baye euh, grand Serigne. Mm-hmm. boo ñëwee seen buntu kër di ñànga fa. ca biir fees na. wallaay ñu génnee. Mm-hmm. balaa ñuy dugg seen oto. audience bu dul jeex. billaay ñu dugg seen oto. Mamadou Diop dem bu àggee hôtel de ville balaa muy dugg ci biirom. ñu nga toog di ko xaar ñu koy xaar yaakaar mu dugg ci biiram salle tant ba ñàng fa lay yaakaar rek mu ñibbi këram ñu hmm. ñàng ci buntu kër ga bu duggee am na ñoo xam ne jot nañ leen installé ci biir lay bu wàccee maalu oto bi day fee sax paraffeur ndeysaan mu war koo liggéey guddi la fay jóge bu demee suba hmm. ca ëllëg sa liggéey bi yëpp na ko liggéey ci

moom doo ngi ci liggéey bi rek. macha allah kër ga di fees dell. macha allah di fees dell mu toog fa mu. boole ko di liggéey liggéey réew mi. soxna si nekk fa rek toog. c'est important. tey jii bës dafa xew. Mm-hmm. bës lii bës bi te li ci bari tamit ñu ngi nattool borom ñi nga xam ne yàlla jox leen fii. Mm-hmm. teraanga wala ñu doon ay kilifa yu mel noonu. Mm-hmm. waaye gisuma ko ci njabootam. wallaahi ci sant yàlla bu baax a baax a di leen di félicité nag ci loolu ñoom xale ak seen wéjur di ñaan yàlla yàlla vraiment sax fa jàmm li ñu mën a wax nag li ngeen wax dëgg de kii mm-hmm. émission bi de mm-hmm. il faut que ñu ko wax deuxième partie il faut moom mm-hmm. parce que dafa am dimension deuxième partie il faut moom si dafay bëccëg lay na ñuy seetaan. lañ ko war mais dinañ ko rediviser aussi ci bëccëg bi allah rabbi mais kontaan naa kontaan naa Ablaye dafa réew daal jërëjëf Diop dafa laaj te am na lu bëri loo xam ne mhm. wéyjur yi ñu am def nañ ci te ak guñ nag ñu war a nag Eh, dajee bi le wax réew mi wax ak réew mi réew mi wax ak réew mi sax parce que sax loolu mooy li nga xam ni sax mooy ilee émission bi walla parce que réew bu nu toogee bañ naan kii fii la bokk ak fee la bokk mhm. Mhm. déjà problème mi ngi am te loolu du Sénégal dañuy def lu baax Sénégal te valeurs yi mag ñi amoon mhm. valeurs yooyu vraiment dañ ko war a sauvegarder waruñu ko perdre buñ ko perdre rek dootuñu waaw kon nañu dem ci monsieur le maire. parce que waa Régis waa Régis fi mu c'est nii c' est boo boo yi ñoom fi mu ne nañu ñibbi. waaw mm-hmm. waaw waaw vraiment euh, mm-hmm. émission bi neex na. Mm-hmm. jëlal jëlal ci masque bi. sànni si tuuti rek si limu wax ci si Mamadou Diop. ak bokkam euh Mamadou Diop dimbali na mbokkam ak ñu mbokkam. Mamadou Diop ministre des travaux publics. moo ko révolutionné. car rapide dem na bu yàgg. lii si topp du car rapide SG2 SG la. sg moom moo ko si uh-huh. amatu fi. mooy car rapide ndondi yi moom. moom moo dem na sg ñëw. moom <coughs> moo ko révolutionné. ba changé ko. booba mu ngi nekk ak mbokkam. di Alioune Diagne Koumba Aïta. nekk Sonaga Sonaga Sonaga. jaune rouge yi Mamadou Diop la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw.

yoof grand transporteur la mu nekkoon sax président transporteur yi ñooyu ñëpp ku nekk fi ñu jaaroon si bi mu nekk ministre transport fexe na ba bi muy renouvelé nga am si sa cër mhm. mais dimbali woon na ñeneen am na xaritam bu ñuy wax Bàcci Diop mhm. waaw koo xam ni daf ko jàppale woon Bàcci Diop ku baaxoon incha allah bi ñu bi ñu nekkee si CIAS euh, dem na mhm. dañu ne ñuy defaree mbalit yi moo nekkoon président wu da nga transporteur yëpp transporteur yëpp lañ doon la doon dajale à la disposition de mon donc ay valeur valeur vraiment nanu roy ci parce que les damay dégg ñu naan dañu am crise des valeurs ñun amuñu crise des valeurs. Les ñu xale yi fi ñu connecté wu moo baax. fi ñu rootee fi ñu roote baax. Mhm. façon mais fi. façon aussi. Mhm. je pense que gouvernement actuel. Mhm. war nañ si xool. avec les médias ministres ministre hein. njëkk yi. waaw nan lañ daan def. lañ daan liggéey dafa am solo. dañoo liggéey pour l'État. pour l' général. L'intérêt général oui. moi je me rappelle bi du coup si politique bi ñu wax nañu man ah, en tout cas de man duma dikk kenn dara. waaw intérêt général. Mhm. On mhm. a déjà le ministère de ah transport. Mhm. le chef du ministère de la santé. mais le le aussi mairie Dakar. wax centre de santé les centres socioculturels. les mairies actuelles sièges mairie c'est son projet c'est lui qui les a réalisés. parce que loolu la yooyu valeur moo amoon. valeur yooyu moo liggéey pour pour pour réew. moo tax. waxtaanam comme li ñuy wax rek. Mm. foog nekk dañ ko war a détaillé. non il faut ñu def lu nekk war nañ ko bu ñu ñëwaatee bi yoon bi yoon <laughs> dafa dafa eh. dafa dafa mel ni ku sacrifier famille am. waaw mm. jël dara. am ah, dafay dem ba doon ci famille am mm. feeñ jabar mosul feeñ ndeysaan mhm, mhm. du ñu dugg si du leen fay du leen dugal si dara. Ah, parce que parce que c'est l'état parce que da doon bañ réew na da doon ah. bañ rek ñu jom ko baaraamu tuuma moo tax tey loolu doon bañ leer na mi ngi féex ngi féex loo xam ni ñi ñuy gouverner actuellement war nañ ko jël mais xale yi aussi war nañ si roy te li nga wax dëgg la mhm. mooy émission bu mel yu mel nii dañ koy def bëccëg

du dëkk yooyu yëpp ay yu ñu war a war a loolu loolu wax joowu mhm. boobu ko waxee dafa guddi mhm. te wax yooyu noonu dañ ko war a wax bëccëg mhm. pour xale yi xam macha allah parce que ku nekk fi ngeen jaaroon ak baax baax ku nekk li ngay wax sa morom si lu baax te loolu moo am dëgg la man mas naa si dajale benn bés fu laa jeexle guddi boo xam ni boobu coow bari na Lamine Diack mu Diop ndeysaan pour wane ne ñoom ni ñu oyee fee ak ni ñu meloon man ki suma xarit la parce que Lamine Diack mag ji am na jaar ak mom mm-hmm. muy Maguette Diack. Mm-hmm. ko xamni ñu bari xamni nañ. am lu homme voleur macha Diop moy sama lepp ndeysaan waaw waaw. té digënté bi metti na ma. day man xalé bu tuti la par rapport ak ñoom. maa leen wo suma kër. Mm-hmm. macha allah. day waxtaan ak ñom man Lamine Diack and ak Ngouda. soirée. kii and ak Momar sar ak Liba am na ñu toog sama kër ñu reer macha allah mhm. waxtaan ak ñoom ma ne waa yéen tamit yéen yéen ay suma mag léegi man boo liggéey bëgg naa peut-être remplacer leen bu ngeen ñuy bàyyee mhm. Mhm. loolu mooy fale xuloo rek loolu ngeen ñuy bàyyi non yéen grand man d'accord ma si loolu fokk naa nga am mais kenn mësul gis loolu macha allah te ñoom ñëpp dama ne dañuy déplacé ku nekk bu dee dara ja ñoo ma ko ëppal bu dee mag te ñoo mag déplacé ñi ñëw hmm. te man wax loolu macha allah keroog la lépp sotti jërëjëf tàmbit jërëjëf kontaan nañ war nga xam ne ñoom waaw vraiment amoon nañu amoon nañu esprit de dépassement dañu amoon esprit de dépassement am sagesse et c'est important jërëjëf tàmbit kontaan nañ trop jërëjëf jërëjëf Diallo waaw Sall Bigué da nga doon dañu wax ci valeur mhm. nit bu amul valeur mhm. xamul lu ko war mhm. xamul lu ko jomm mook bàyyi ma yu ñoo yem dëgg la ñi mm-hmm. da xam sa wareef mm-hmm. xam li la jomm sama bàyyi da nga ne nañu wax ci nit ñi mm-hmm. ak seen mbokk yi waaw alaaji Basiru Jaañ alaaji Basiru Jaañ quatre-vingt-cinq mbokkam yi waaw lañ ko fal sëriñ Ndakaaru jox ko yéen bu diis bi bi Ndakaaru àndee jox ko baat bi jël xar baax yi jox ko jël ndomb yi jox ko waxoon na leen du leen mu sa wor dëgg la ba koroog may dugg suuf walaay dëgg la waruñu benn yoon. te waxoon na it ndomba yi àjjana laa koy tekkee. ndomba yi ba mu lonkoo ci baatam ba tey. Mhm. ca la gëj a dégg ca la gëj a génn. ndeysaan. ndomba Serigne Dakar. waaw ah, waaw ca la gëj a génn. Mhm. mu nekkoon Serigne ndakaaru nag. Mhm. bu exemplaire. effectivement ci élégance. ndax buñ la joxee cër. du cër cër yi xew léegi cëru lekkukaay moo xew. waaw. grand sëriñ amul woon salaire. mais cër boo xam ne yaay dindi di joxe. indemnité quatre-vingt-six mille la doon fay ko chaque mois. xam <coughs> nga loolu bari bu bëgg ci yor Ndakaar. <laughs> bëgg ci faj yi. waaw bëgg jënd ordonnance ak kër ga Guana. voilà chaque vendredi. voilà <laughs> kon moom dafa nekkoon nit ku exemplaire. dafa amoon benn xaritu tubaab bu ñëwoon vacances sama kër. Mhm. tombeek ñuy gàmm ci mbedd bi. Mhm. mu ne waa li doon wax démb ci guddi gi yëpp lan la. Mhm. ma ne ko yonent bi leen doon wax mu ne li doon wax ci yonent ma ne ko ma ne ko il est il est gentil Je ne ma bu si ko mu mais toute la nuit mën ta nek <laughs> xamul lu baax tamit ah. li ñuy wax mhm. ko mais jël ay fait mhm. pour nga xamni ne nit la mhm. bi ñu denc ko keur ma jabel ñu ne dañu def dafa ne di te mirem, ñu ñu armée waaw surtout lu ci biir ba pare voilà lu mu jël coppati bayam rek musée la ko valeur la la ndax esprit de partage gi noonu. Ah, valeur la esprit bëggal sa bëggal sa bopp daraja. li nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom. ndax loolu mooy ànd. c'est important. maçon yi fii la leen jëlee Dakar ñu def fa 6 mois. Mm-hmm. bu daan tabax kër ba mu pare. Mm-hmm. su paree ba kër gi jekk. Mm-hmm. day peinture ñaari kër yi den dog moom. waaw. Ah. yor pharmacie yàlla bi nag. def jël cachet. ku andi pharma ku andi ordonnance. bu dóor ci cachet yabal la benn pharmacie. li mu yóbbu ci ay màkk. kenn xamul kenn xamu ko. kenn xamul li gën a doy waar ci moom nag. Mm. amul woon jotu boppam. Ah. amul woon jotu njabootam. Mhm. Mhm. ndax koo xamante ne boo xëyee di génn sa kër. Mhm. amul gardien ñaa ngi toog di la xaar. waaw ngay def say doléance ah debout. ku ne nga jox ko cinq minutes. jox ko nangam cinq minutes jox ko nangam cinq minutes jox ko nangam ana bi bàyyi ko ci kii ana këyit bàyyi ko ci nii. nga yeddu ji ca bureau ba. sa añ di la fa fekk si. sa njaboot du yendoog yow. say soxna du yendoog yow. nga toogaat fa sa recevoir su boogoon jot. bu tudd amee yàgga ca. bu ngénte amee yaa nga ca noonu bu jël bu dëj amee sa nag jiitu na ak sa ceeb ndax nee na léeg-léeg du ñuy jooy jooyo ju dëj bi de hmm. la ñuy dëjee la ñuy jooy wallaay dëgg la nee na nit boo koy dimbal hmm. day teel waaw dimbal day teel waaw ci moom laa déggoo boobu dimbal day teel dimbal day teel ci moom laa ko dégg tribunal hmm. ñaatam la fa dem di plaider kenn xamul lu mu toll ba du mu feebaree ndeysaan wallaay dafa woo procureur Ousmane jaaj mënu koo jot ndeysaan koo xamante ne bu fanaanoon gàcce am mu ne nañ ko solali de mu jàpp ko fi ñu jàpp ko fi est-ce que liy métti lool saa bu yëgee premier noyyi bu yëgee premier noyyi ba ñu egg ba ci biir Ousmane Diagne Ousmane Diagne ne ko ma pap mënoo laa jot suba léegi dafa am góor goo xamante ne mi ngi brigade port mhm. Mhm. dañ ko war a libéré léegi mu ne ko demal naa ko li mu ne ko déedéet këyit gi nga may jox kay ma dem brigade port waaw mhm. ko kon mbaax sëriñ Ndakaaru rafet na de neex na de waaye comportement ba ak la ngay jëf mooy rafetal col gi te dafa baax am jot nag ci njabootam am jot ci libu gi am jot Sénégal mën a déglu ñu toll nag ci Ndakaaru nag mm. kilifa buy defar dafay rafle waaw yàqkat yàgg naa am waaye defarkat day am mm. defarkat amul dëgg la ku nekk sa propre intérêt mm. moo la intéressé mm-hmm. ak sa intérêt njaboot mm-hmm. moom da daan dox sol dàllam guddi mm-hmm. président Macky sàll bi lu ma ko fonkee xam nga lu tax dafa fàttewul démb dafa ne bi ma xulóowee ak Ablaye Wade ñëpp dañ maa daw ndeysaan sa baay di ñëw sama kër bëccëg te ragalul woon dëgg la boobu lu mu bëggoon bu sotti woon tey du ma nekk président ndax dafa bëggoon ma delluwaat ci Ablaye Wade waaye boobu yàlla sàqal na sama yoon boobu dëgg la mhm. dëgg la kon moom régulateur social la waaw waaw waaw éducateur la woon médiateur la woon wallaay dëgg la daawul jëw nag déedéet fii loolu fi xew dafa am ñoo xam dañoo teg opposition tànk teg gouvernement tànk waaw loolu ngarale boobu dafa ëpp sama pap ngarale day xëcc ku tey xotti tubay dëgg la nit ñi nañu nañu sincère ci seen ànd ci Dakar message gi nag la ñu am mhm. mënuñoo dem feet dëgg la dañoo jënd bàmmeel wallaay dëgg la Diagne France faju moo ñu mm. fa yóbbu loolu tam ñu ngi mm. ñaan yàlla yàlla mu cël ñu ci léegi ñuy faju fii. ñu fajoo fii ay Covid Covid bi wan nañu lu bari. voilà war nañ fee mën a fajoo. Covid bi tamit Covid bi rek am na lu bari. war na borom alal yi de alal. waaw du denc ndax bu doon faj ñu faju alal séddale la tudd. nañuy maye. di saraxe di séddale di wax lu baax. di mm. jëf lu baax di wa séddante nag lu baax. am solo ndax bëri na ñoo yendool mm. bëccëg mm. bu guddee ñoo lay yàq ànd jaayante tàggoo jëwante mm. tàggoo jëwante mm-hmm. ñi ngi ñaan yàlla mm-hmm. andi jàmm Sénégal amiin li li ma war a wax ci paa bi yëpp wallaay bind livre la wallaay dëgg benn émission baax mën tawee su baax koo xamante boo defoon micro trottoir ah. soo dajal ne naa lekk xaalisam amoon naa lekk xaalisam mës naa defal nangam mës naa defal sama yaay nangam mës naa defal sama pap nangam moom loolu moo doon rôlam la ragalul woon président nag bu dëgg jotee. da ko koy wax wallaay macha allah. la ko njëkk jotale ak Ablaye Wade mm-hmm. ba ñu jëlee corniche bi mm-hmm. jox ko Magic Land foowukaay xale yooyu te place Ndakaaru da ko ne li nga def waroo ko def ndeysaan Ablaye Wade xuloo ceeg moom kon da daan nekk nit koo xamante ne ragul woon wax dëggam te fu dëkk bi tàngee bu jóg mm-hmm. daawul làqatu nag daawul tëj téléphone barki dem yi affaire Sonko bi amee am na kilifa yu bëri yoo xam dañoo tëj seen téléphone tëj seen kër làqatu moom da daan génn wax ak réew bi kon maa ngi koo xam ne boo noppee mu boo noppee mu defaru ba ba ba boo xamante ne boo noppee mu yàqu boo noppee mu yàqu te boo waxee mu defaru boo waxee mu defaru ah waroo wax waxala la war muy lu am solo liñ naan ku mënul bawoo lu yàqu yow la waaye ku mënta defoo it lu yàqu yow la te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar boo ne njaay ni jóob ñu ni sama kal ñu kafre sama jaam ñu kafre jaam rek la Sénégal rek la am tukulóor séeréer sama jaam ñu kafre Sénégal rek am loolu buñ ko yàq loolu buñ ko yàq kër yi foo dugg am na waa kër sëriñ tubaa am na waa kër maam alaaji Hadj am na waa kër maam Limaamu am na waa waa kër maam Boukounta Sénégal moo bindoo noonu benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar li ñu boole moo ëpp li ñu takkale kon une fois encore une fois xale yi yi nekk université yi am démb. nañu xoolaat bu baax li ñuy def. loolu bu mu amati. Hmm. ci diggante séeréer ak joolaa. ku ci war sa moroom duñ ko gis. ku ci gaañ sa moroom yaa koy faj. Hmm. ku ci rey sa moroom yaa koy dëj hmm. mbokk ngeen. te xale yéen ëllëg yene yori réew mi kon na ngeen xam fi ngeen dem di université mhm. mu nga xam mu muy temple du savoir sa doom bu daan dem université bu njëkk da ngay bàkku ni sama doom université lay dem ñaanal leen ko léegi sa dem buy dem université da ngay tiit kon yaa problème mhm. xale yi delloo si leen xel yi te xam ne ëllëg yéene dese réew mi yéen a bokk nde yéen a bokk baa yéene tuddante ay doom yéene mayante ay jabar mhm. loolu moo doon émission bi tey Sall Bigué lii nag jaal suratul yaasin la macha allah dañ toll ci ñaanal réew mi kurus la si da yaasin macha allah fondation Serigne Dakar lañ ko may. macha allah yéen invité yi. jërëjëf Diagne voilà sa waajur. ñaan daal moom lañu lañu dese ci réew mi. yàlla delloo jàmm ci réew mi. def nga ni sa waajur wa daan def. fu mu saan tëjee nit ñi. lu mu xat xat xat xat dinañu jox ay ay de morale. Mm-hmm. dina yëkkati alalam jox nit ñi. Mm-hmm. te dinañu bàyyee dara loo xam ne ëllëg fu nu dem mën nañ koy jariñoo. kon nag lii tey moo doon seen émission bi. Mm-hmm. lu ci dëng ngeen xam ne matadik doomu aadama la lu ci jub kàttan bi suñu borom la ma leen gërëm bu baax Ablaye monsieur le maire di leen gërëm bu baax ñi leen di gërëm bu baax waxtaan bi neex na doyaluñu doyaluñu ñiy seetaan doyaluñu man am doyalu ba waaye nag <laughs> lem du jiw dangay diwal sa baaram rek màcc ku tëru butéel bi daan kon nañu bàyyi leen benn extrait boo xam ni moom leen tëjee émission bi jërë ngeen jëf ba beneen jox la rajo nga takk sa ndigg amoo ci benn kasa saago ku la neex sànni rajo ba dem sa yoon loolu de maa ngi leen di xamandi goo ko ci def te da ngeen xam ni àdduna ñaara ko bokk du ñett ñaara ko bokk mag ak gune est-ce que xam nga ne mag daf fee nekkoon bi nga fi newagul ndax tey jii yow ku la waxoon ban bés nga juddu te du te du mag ñee la ko wax doo ko xam bu ne laajoon xadmañ la reyal bañ lay tudd nu mu mel doo ko xam kon mag a fi nekkoon bi nga fi nekkul xam loo xamul yéene la jàmm kon mag gune yi nañu mal mag ñi mag ñi leen jur bëgg leen jàmm ngeen wormaal leen jox len seen cieur mag ñi itam ñaanal nañ leen bëgg nañ leen ñoo leen jut yéen Nyom yaakar gune itam mag ñi warmal leen ñom ñaar seen ñaari force moy defar aduna gune ba ko bokk de su mag deme bàyyi gune gune dina jaxlé su gune da mag mag jaxlé yi ñaari jaxlé ba dajé nak aduna dootul jax kon nu delu xel xam na ku yalla mun mënu no sawé ku yalla mënu no defar su de suñu bop ca yalla di gërëm yalla di sant yalla sukk fa kanamam nak nun ñepp ñu xamni amu ben borom bu dul moom kenn ñu borom ku dul yalla nun ñepp itam ñu daje xamni sunu sang moy rasulillah nu teggu ci rek te selal jamam way njulit go xam ci lamine la nek sama papa julli sama yaay julli rek julit nga di def lu bon di nan sangar di carte di jay drogue di fen di njaalo di war do julit sariya nga ak julli sax kon nag mbir maa ngi noonu ma ameel nag ay ngërëm ak cant kilifa diine yi ci réew di ñaan war ma bu leen mën a jox nañ ko الله الرحمن